nag taxaw pour wan leen activiste bi ànd ak Samba Abidjan ak activiste bi ànd ak peuple bi ñun nag activiste peuple bi lañ na leer kon xel yi yeewu leen gars yi tàmbale nañ de législative lañ jëm léegi nag dañuy commencé waat divertissement jaxase xumbal yaa ma gën a xam politique sa façon de maanaam li may tooñee àdduna naan àdduna ku ne da nga am sa angle de tir. Mm-hmm. voilà am na ñoo xam ne naxaate mooy seen angle de tir. Mm-hmm. boo ñëwoon loo baax baax lool leen fonk fonk mm-hmm. fi ñuy mujjee ak yow mooy nax la noonu na demee. nga fam ñoo loolu loolu loolu def ci nit la rek. mais yow yow yow yow boo doon tënk tey jii ñoom lan nga mën a wax ci ci façon ñoom bi ñu bi ñu nekkee en masse rek ci réseaux sociaux yi rey nañu. réseaux sociaux yi nag ñëpp fa ne di. waa ñëpp ci nekk mais ñoom dañ cee fës. déet ñëpp ci fes ñëpp ci ne. déedéet mais ñoom dañ ci fes comme Serigne si. waaw ah, Serigne si. man nag gis naa ne fesuñu ci. parce que sëriñ si buñ dee ëpp nañ buñ doon téeméeri junni. salaamaaleykum Sénégal ah Amadou Baro Sénégal gaay ma taxaw seetlu si tolluwaay réew mi ah wax sama xalaat ak sama gis-gis. di wax nag tey si birowu Bijou Ngoné Big Taf ak Cheikh Bara njaay def gis na chronique waxtaan si ak sama xalaat comme ni ma ko yàgg defee rek kon loolooy vidéo bi tey dañuy jukki nag lu ñu dégg ñu wax nuñ ko déggee ak niñ ko gisee Cheikh Bara Ndiaye nag day wax gars yi di questionner ñun ñiy seetaan di xalaat di wax suñuy argument ak suñuy gis-gis en ah, gars kon ñu bàyyi xel Cheikh Bara Ndiaye waaw sa façon de maanaam li may tooñee àdduna naan àdduna ku ne da nga am sa angle de tir mm-hmm. voilà am na ñoo xam ne naxaate mooy seen angle de tir mm-hmm. boo ñëwoon loo baax baax loo leen fonk fonk fi ñuy mujjeeg yow mooy nax la loolu la demee mm-hmm. lu yàlla moom Cheikh Bara Ndiaye hmm? kii laa lekk ndiir voilà li laa lekk đi loại genre affaire yi man ak yii nii ay buy buy ay ndiir du ma lekk ay tàngal tàngalu gaay man yi laay lekk léegi Cheikh Bara dafa ne àdduna bi moom lu muy tooñee waa àdduna ku nekk la nga am sa angle de tir yow mi seetaan vidéo bi bëgg naa nga commentaire ma wax ma sa angle de tir man sama angle de tir nag actuellement nii ñetti ñii la Cheikh Bara Big Taf Bisou Ngone ak seen émission bi émission bi li ko tax a jóg muy divertissement bégal nit ñi ci kaw loolu nag ñun ñu ànd si suñu point de vue ak suñu gis-gis Amadou Barra Sénégal kon Cheikh Barra day wax àdduna bi ku nekk am nga sa point de def ci nit la rek. mais yow yow yow yow boo doon tënk tey jii ñoom ñii lan nga mën a wax ci ci ci façon ñoom bi ñu bi ñu nekkee en masse rek ci réseaux sociaux yi di rey nit ñi. réseaux sociaux yi nag ñëpp a fa ne di. waaw ñëpp ci nekk mais ñoom dañ cee fës. ñëpp a ci fës ñëpp a ci dañ cee fës tamit. comme Serigne si. waa ah, Serigne si. non man nag gis naa ne fesuñu ci parce que Serigne si buñ dee ëpp nañ buñ doon téeméeri junni ci dëkk bi. Mhm. maanaam junni ñoo ci génn ci internet bi. non nah, kan ya, mais pas xam nga nak génn gis génn fa yombul parce que da ngay fay. wa mais charlatan yi ñooy xam nga tay di ñep ñooy génn. non amna ñuy génn ta duñ charlatan. wa motax tax ma ne la. amna ñuy génn amna ñuy génn ñoo xam man xam na ne man xam na ne ñi am nañ am nañ xam-xam. waaw ku ci melni kan. non amna amna ku ñuy wax bara xaw ma nu mu tuddati damaa fàtte sant wi tam nek ñaseen la ni te dëkk Sacré Cœur. bara ñaar fàtte daal. léegi li ñu ci xew kooku ñaseen euh, kooku am na xam-xam. Mara Niass Baara xaw ma nan. Mara Niass. Mara nag vraiment man xaw ma ko mosuñu gisante. <coughs> mosuma am sensu tamit seetaan ay mbiram. ay mbiram wala gars yi Baara Cheikh Baara Ndiaye maanaam maanaam borom xam-xam yi gars yi wax ñoom moom ak Bijou Ngoné ak Big Taf ñoom ñett borom xam-xam yi ñuy wax yu nekk si internet bi di wax. loolu la Cheikh baara di loolu lañuy ñuy laaj Cheikh baara ndax gars yi maanaam mbo moromam yi mbokkam mi mbokk sëriñam yi ndax am nañ xam-xam léegi moom day wax ñi mu jot ak ñi muy gis seetaan dana am nañ xam-xam muy Bara mi muy wax ni fàtte sant ba ba naan ñeseen la hmm? parce que tamit soyons sérieux Cheikh Bara ne yow dem nga ba seetal waa ji xam-xamam te mënoo wax tur waa sant waa ji xew xamoo sax waa ji waaye Bara la Bara maanaam génnu la yow sama gis-gis parce que Bara boobu tey boo ko doon wër xom foo koy gisee de waaye saa tàppee Bara moom man xam naa ne Cheikh Bara Ndiaye def gis ngay gis hmm? gaay ñu déglu rek ñu waxtaan ñu déglu waxtaan si biir seeni wax man si laay wax sosoluma kenn tuumaaluma kenn Cheikh Bara Aïcha ñu tàmbale ah ñu waaw voilà euh, Moussa Dramé yàlla kese Moustapha Dramé mas nañu nuyoo benn yoon. Hmm. mais wax dëgg yàlla moom tamit waxuñu waxuñu gisante mais d'après ni nga leen di gisee ci xam ne la yàlla mayee xam-xam nga ne jàkk nit ki war a mën a xam ndax kii li muy wax noonu la wala du noonu kii mën na. wala ah, non non xam nga nag mënu ma a jékki kii day cinéma wala day ambiance. non mais mënu ma jékki mbaxanaam sol yéeram yiw ma jékki-jékki rek maanaam naan xamul dara wala naan xam na dara parce su ma waxee xam na dara dama a wax ci ñi nga xamante ne maanaam ñoo xew daal man man nuru na ma ku baax ku baax laa ko jàppe am na nag phénomène bu bees mooy ci ñu dañuy génn ne man maay marabu Sonko maay am na ku ma ciy gis euh, ku ñu wax Serigne Cheikh Tidiane Niass moom sax est-ce que moom tamit borom def gis même tur def gis def gis euh, da fay dakantal toujours Sonko Sonko marab Sonko marab Sonko est-ce que parfois dañuy dañuy dañuy wu ñoom pour mom waxul ne marab boobu day ñaanal Sonko de non marab de Sonko da fa nek marab ba noppi comme géwalu Sonko comme feccekatu Sonko ah comme lawbe ah, Sonko comme non rek marabu la bo xam ni Sonko ah, lay àndul ci def gis bim bim wax nak mom itam def gis kan moko mom ayaw ah, mom moko moom moo eh, man di jënd ma mom mako dañ makoy woyé rek waaw ngoone man am naa am naa am naa am koo xam ne biisu la tudd sant Diop. ngoone yaayam ma koy tooñe biisu ngoone. te boo ko gisee comme ngoone nag comme biisu ngoone daanaka boo ko bëggee ñawal jas neer vingt <laughs> mètres sol jënd sama rakk soxna biisu ngoone biisu ngoone tamit. man du ma sol sama rakk soxna bii su ngoone la tudd bii su ngoone soxna bii su ngoone la tudd bii su ngoone sama rakk soxna bii su ngoone la tudd bii su bisu neena du sol jasneer suus na guerre lay sol mais lépp suus na guerre maanaam jasneer suus na suus na guerre mooy mais mais mais mais bisu tamit bisu baal mu sedd commencé guñ de te émission bi laa gudd <laughs> man du ma sol jésneer sama rakk soxna bii su ngóone la tudd bii su ngóone. furs neger lay sol du ma sol jésneer. Ah, cent pour cent coton imina la lii. mais eh, met nga koy jëndal boo koy jëndal. d'accord waaw. <laughs> xam nga li ma bëgg a wax. non dëgg la <laughs> waxal lu la neex. xam nga nii ngay def ba ma wax la loo xam ne bëggoo ma laaj la. je te le respecte un peu daal la. waaw man je te le respecte beaucoup man. waaw baax na dama lay laaj sama yaay de. Eh. Ah, ok. <laughs> bisou. ah baax na kon de yaa ngi fi nga nekkoon. surtout sëriñ waaw man daal Baara Sañaan. Mm-hmm. defe naa ne Baara Sañaan. Mm-hmm. xam naa ko. Mm-hmm. fàttali ko nu sant bi nee Baara Sañaan kon gaay tàppel waril di leen Baara Sañaan asawaay nee na borom xam-xam la waaye nag nañ continuer. mu gis sax wax dëgg yàlla mais am na ay vidéo yu may topp damay gis na kii am na xam-xam. voilà jup ñak djup def liggéeyam ñak ko def lolu bam mu affaire la mais xam am na xam-xam euh, tam bo ma bété ni nak duma mëna waxati mais Sidi mukhtar sin malu malu war na ku ne gay malu war na ku ne yow mi dama musuma la xawma la de waye am nga xam-xam boroom xam-xam nga su waaye nag su ngeen ma bettee nii lu ma ko mën de comme xam ma maanaam maanaam li li ma li ma bëgg ngeen maanaam tenir seen attention mooy maanaam waa ji Cheikh Bara mook Sanjogu maanaam seen émission bi ñuy def Walf dañ koy teg si yoon teg ko ci norme waxtaanee question yi waxtaan ci kii si soog a ñëw yàqal ko sénégalais dañ koy togg mais bii do bii togg ko préparé wu ko waaw te ñi ko sekkal tamit ñoo fi dalaloon ñoom Pawlish Mbaye ak Ouzin Keïta Ouzin ak dix mille problème ak ñeneen ak ñeneen ñu leen gën a téppale ko xam ñaan yi yow buñ la invité lu ne la loo yaakaarul sax dana la ko laaj te tamit lo yaakar ñu laaj la duñ lako laaj parce que ñom buñ la invité yow pour nga mëna doxal lén moy sa objectif lén ngay jëma def moy maîtriser lén manam diriger diriger débat té te loolu Cheikh bar après fa lay jëm parce que sibir sibiri wax mom dem la ba xamné carrément ñaan ñi ko sékkal ni ki am na lu ko rusé té ké tollu tollu ko manam niveau kamu nga manam dalen waxu dalen waxu apare waaxu kan après mais pour ngeen comprendre nak ene li Cheikh bara njay bara njay mi di def yow mi tok sa keur mën nga ko def mën kan nga ko xalat muy analyse politique muy wax sa gis-gis ak si réew mi comme ni Cheikh bara di defé comme ni koy defé yow war nga ko mëna defé nonu fofu la mi ku si nek da nga wara am gis-gis andi ko bu ko defee ñu xool ñun nag naka lañuy def pour dem mais sànq amuñu xelu xalaat wala di toog di xaar ne Cheikh Bara Ndiaye kat day def chronique xaaral ma dem déglu ko xool situation dëkk bi hmm? loolu boo ko boo ko tàmmee di def boo gëstu Cheikh Bara wala bu Cheikh Bara bàyyee wax yow nooy def da ngay wari keneen ba tey sa xel màccagul léegi nag ma andi benn ma wax leen benn affaire. ma baaxe leen ko séddoo ko ak yéen partagé ko ak yéen bu fekkee ba nga am esprit bi Cheikh Bara am ak ñu mel ni moom am bul topp li la journal journal yi di tegal bul déglu rajo déglu ma bu baax bul déglu rajo bul ragal sax seeni information raw la seetaan télé nag bu bu ko lijjanti déconnecté wul carrément si ñoom seeni esprit ak seeni gis-gis après nga xool les résultat Cheikh Bara amul jotu seetaan télé ak vidéo bu defee li muy def ba pare dem na yoonam mi ngi ci leneen moo tax xam-xamam day pertinent day nekk lu bees xam nga nit ñi nag après moom la ñuy jël copier ko def ko actualité <clears throat> te ku jël say wax ak say chronique def ko actualité yaakaar naa yow mi wax wax ji yaay actualité kon soxla soxlawul ngay déglu ti kenn parce que gars yi ñu ngi lay xaar kon nag gars yi ñu continuer développer Cheikh Bara wax ak ñaari sama gars yi du yomb rek ayca Cheikh Bara ñëwal ñu gis. sëñ Moussa Dieng Moutar la man ak moom bokk na nekk lu ëpp ñetti at wala ñaari at boobu. Hmm. Ah, fii ci Dakar waaw xam naa ko bu baax euh, bokk nañ benn néeg ay jëmmi jamono. Hmm. waaw. Eh, <clears throat> ñoom Samba docteur Samba Ndiaye xaw ma ci loolu ñooñu nga koy boole xaw ma. ak. Euh, tradipraticien waaw tradipraticien la mais am xam-xam. muy mm-hmm. mm. nit ku baax. waaw. tradipraticien la mais am na xam-xam mais bokkul ci borom xam-xam yi maanaam sëriñ si nga xamante ne lay wax pour ngeen bàyyi si xel si maanaam kàddu yi parce que buñ né amna xam-xam wala amul xam-xam mais ñi am xam-xam si sëriñ ci nek si internet bi la Cheikh Bara di wax motax buñ si bolé docteur saba Diallo gaay dañ ko ne je pense gaay dañ ko né non koko bokku ci parce que praticien la mais mais ñun tamit xam nañ né Cheikh Bara mi praticien la kon xam-xam bi lan la la moy xam-xam Hmm. xaw ma xam-xam la xaw ma xam-xam xaw ma réeralaate la mais confrontation ngeen nekk dinaa leen wax nag lu ma dégg seen <laughs> confrontation waaw la laa dégg mais pour ngeen xam la laa dégg nag dangay seetaan vidéo bi ba mu jeex boo ko seetaan ba mu jeex na si jeexantal bi laa leen wax lu ma gis lu ma dégg maanaam lu ma jot ak far confrontation bi am émission bi ak lu ko tax a jóg parce que nak fi ni toll ni ni ni jamono ji hmm? il faut ngeen gëna farlu taxaw ci seen jëm sam seen bop ar seen bop ndax yeen rek ko mëna def ku dul yéen mënul leen ar fi kep ko fi gis amna lu ko doy mbob ak tubay ak caaya lu graw la leen do wax àdduna bi fii ñu toll nii nii nii jamono ji képp koo fi gis muy dox muy doomi aadama ah, am na lu ko doy mbubb ak tubay ak caaya bu la ko waxee bu la ko waxut bu ko wanee bu ko wanewul léegi nag bu fekkee ne nag yow xamagoo li xew nga teg sa yaakaar si nit ñooñu wala si nit kooku hmm, boo xefee yow yaa koy yow yaa caaya yaa koy lijjantil mbubb ak tubay waxin la nag Cheikh Bara temps amul nakaaw ñun hmm, ñooñu daal sëñ mos Ndiaye alkarim sëñ bi yaa ngi bëgg a lim nag ñi ngi bëgg a ah, ah, bari kon xëy na am naa yem foofu mais gars ñi ci xam dara bari nañu ci baax bari nañ de <laughs> waaw Ablaye Diop xaas waaw xaas de wa am na xam-xam de ndax wax dëgg yàlla ah waaw xam naa ne ุ้มคำทำไรว่าแม่คำนะคำคำขนาดคำนะคำคำคำมันขนาดสามนะคำคำพัสก็คำกันเนี่ยตุ่มไตเดี๋มาเล่นว่าดูได้เด็กคำคำโคมคำคำโคมาเล่นเล่นในเซลล์มันไปจับเล่นแล้วมาเล่นว่าเด็กกายมุมจะมาดี taxawalal sa bop nga xalaata sa bop nga xolal nga defal say analyse sa bop comme ni nga Cheikh Bara Ndiaye di defé bu ko defé di def gis bi sax bu la nexe nga engagé ko parce que mom nee mom ko waaw bu la nexe nga nga ne ya. Amadou Baro Sénégal def gis waaw fa la jamono ji tollu ñu nga du mu beralee loxo seetaan leen. mu ne Abdoulaye Diop Sénégal yëpp xam nañ ko. Hmm. Ah? waaw franchement. ah voilà léegi loolu loolu loolu da ngaa yaakaar ne neen ak moo koy def wala da ngay toog di naax nit ñi. ah xam. lu tax sama gars yi hmm. nit xam nañ la rek am nga xam-xam <laughs> Sénégal. gaay man daal man daal man daal man daal man daal jommi naa quoi jommi naa ci sénégalais yi waaye nag ñoo ko def sunu bopp de ñoo ko def sunu bopp waaw mais maa yéen a ngi waajal sama gaay député yi yéen ngeen di waajalal assemblée lañ jëm de waaye nag jàpp leen ne gars yi campagne bi nii nii nii nii lépp luñ jot a investir natt yi lépp luñ jot a natt ci campagne bi buñ faloo dañ koy teggi ba pare soogu gëstu bëgg-bëgg askan wi ngeen bàyyi ci xel député mënul xolal mënulul mënuluñu xolal naa la xamal dara de jamono ji fi toll nii député yi mënu luñ dara sawaay sàll gaar yi booru gere lam tooro ah gars yi mënu luñ ko xoolal dara du député du politique du ay élection du ay voté loolu moom dangeen ko xam bu baax a baax a baax a baax a baax a baax waaw ay démocrate libéral ak yooyu yëpp xoolal sawaay mënul si sawaay lenn si biri si si jamono ji ni tolu di di dox di dem di ngeen ci xel ci limu leen wax waaw sawaay fowul kaful foolowul réewu ci bañu ci dara bakanam la ci tek léegi nak yeen da ngeen di se da ngeen koy jaay sen bakkan wala ngeen xol lu ngeen di doxee mais du yoon bi ngeen jël mokoy fi jëlé wax bu yegg nak xolal nit a ko moom ñun waxuñoo ko ay dof déglu leen Cheikh Bara Ndiaye bu ñu génn concept bi damay dama doon sànni waaw pour sama gars yi rek ñu bàyyi si xel xam ñan lañ ko sekkal gars yi. ñu mënul dara kun kànde ko ko ba ñu gàdde fi. anamo dafa xam dara. anamo mais parce que dafa gàdd confrontation tamit ku fi ñëw gàdd confrontation bii mooy bu baax bi Ablaye Diop xaas daal li ma mën a wax man man suma dem këram ne ko defal ma lii bañ ne musuma dem ci këram ne ko defal ma lii musuma gis musuma fa yóbbu nit ne ko defal ma lii mais en tout cas d'après man li ma mën a wax mooy booy lim ñi am xam-xam di nga ko ci boole. mais parfois doo leen dox ci ci la non non non nit ñoo yeewoon. dégg ngeen dégg ngeen man lii laa leen wax man bisu ngoone man li moo tax mu neex ma dégg nga ko dégg nga kon buzz kon buzz mooy xam-xam sëriñ bi moom kii sa waay Cheikh Bara moom moom actuellement buzz day jaawale xam-xam. instant bi nii mais ñoom ñoo ko dugal si piège boobu question piège lañ ko laaj parce que am na loo xamante ne bu fekkee ne dafa am looy incarné si réew nga ne yow nga nangam nangam nangam yor say lu bari teg sa kaw maanaam yor say affaire wax lu la neex ne moom am na question yoo xamante ne même buñ la ko posé loo nam wax bëgg a wax wax wax xalaatal am na loo xamante ne yow mënoo ko wax mënoo ko expliquer. te xamoo waa ji te même boo xamee waa sax ah, waa ji mënoon la ñëw indi la benn affaire boo xamante ne da koo maîtriser rek andi la ko teg parce que xam-xam moom dafa yaatu te xam-xam mi ngi tàmbalee ah, xam ne gëmmantu nga nga nelaw yeewu xam ne yeewu nga xiif xam ne xiif nga kon gaa gaay bu leen kenn xoolal ñor di boroom xam-xam quoi fii ay boroom xam-xam rek a nekk ci àdduna bi dof yi sax ñuy gis ni dañoo am xam-xam waaw parce que dañuy xiif xam ko saf gannaaw kër xam ko est-ce yéen a ngi dégg kon nag sawaay confrontation mi ngi nii fin bi nag dinaa leen wax confrontation lan laa ci dégg kon gaay ñu continuer ah. mais yu guddi nag de waaye man amul ragal saa ma may rek dinaa chronique dinaa waxtaan dinaa taxaw seetlu parce que mooy sama wéttal te aussi tamit mooy sama arme te aussi tamit mooy sama paar sama paar ci combat bi te combat bi may combat si kanam tuuti si ay jamono di ngeen gën a xam lan lay combat mais man sama combat. dépassé na seeni combat sama combat sama xeex li may li may lijjanti dépassé na li ngeen lijjanti wala di ko xeex waaw sama gis-gis so sut na seen gis-gis romb na seen gis-gis si ay si ay jamono nag dina leer waaw au fil du temps ñuy vidéo di wax li ngeen gis lu clair et net ñu leen koy wax kon nag ñu continuer gaay si sama gaay yi gaay moom duñu bàyyi big taf bisu ngoone bis bi mu juddu ñoo ñoo dëkk fi mu dëkk tolloog moom maaseeg moom te ñetti nit xamuñu leen. waaye mën nañ nit mbir boo ci nekkee ba ba agsi ko mën a defal. d'accord mais est-ce que doo leen jox nit ñi ay sunguf pour ñu leen topp yéen. ah man de duma ko def. non en général est-ce que am na ñu koy def. ndax xam nga nag sëriñ secret la. Mm-hmm. koo xam ne boo koy seeti doo ko wax. Mm-hmm. boo ñëwee ci kër gi yaa moom yéenay bokk benn mu nekk làqatu fa. lam lay wax bëgguma waxaat ko te boo génnee doo ko wax. Mm-hmm. daanaka loolu nag la cay xew néew neex na mu xam. parce que lu bëree bëree bëri sëriñ si bu ñu la naxee ngay wër naan nax nañ ma waaye ba ba ba ca baax doo ko woon kenn. parce que loolu mooy jafe-jafe bi. kaa bu mel noonu moo tax nag maanaam may wax ñëpp rek da ngay rek. ak di yaakaar. Mm. waaye nag wax dëgg yàlla sëriñ moom mbirum sekkare la moo xam ne. Mm. nit daal ku dem ba këram. weexal ko ngeen jëflante bu xamee kooku mooy xam ne xam ne bu xamut dina xam ne xamul. xam li tax ma laaj waaye nekkul tax ma laaj la loolu mooy euh, récemment am na actualité buy daw ci sëriñ bu mag boobee nekk Ngaabu ñu sëriñ Modou Lo Ngaabu euh, ci taalibeem gis nga gars yi ko fuñ ko dippee instant bii nii confrontation la de mun nga dem ba yaakaar ne yaa dominé <laughs> ñoom ñaar ñuy ñëw gis nga fuñ dikk moom sëñ Modou Lo Ngaabu man nag man Amadou Baro Sénégal li sëñ Modou Lo Ngaabu def xawma ko yëguma ko am naa si droit waaw ba tey fi ma toll di wax ak yéen gëstu jiw ma sax lu mu def maa ngi dégg nag rumeur yi di daw ñu naan Lomotif la léegi nag ñu dégloondoo fii xalaatu sawaay ak àtte sawaay ci mbir mi ak gis-gisam ah. bu paree tamit ñu tamit noo def ñu am lu ñu gis ak lu ñu wax parce que ay sawaay moom def gis moo moo aak jamono ji moom def gis waaja nag nee def na gaa yi gis nañ def gis da ciy andi quel bi taf question bi mu dugal nii dafa doy waar ak du taalibeem dafa nekk je veux lu utiliser le ni mu ni mu demee ñu bari di ko tuumaal amaana tuumaal wala du tuumaal xamuñu yàlla rek moo xam loolu judd ci ci dama doon ñaanlu mu am lu ma séq ak man wala di def ak man appel vidéo wax joju judd est ce que nekul ba tay ci cadre bobu lañ ko boole ak naka nga gisee situation bobu wa serigne Modou Lo bom bokut ak bokut ak ñi ngay wax mm-hmm. bokut ak lay jox xaas bokut ak Cheikh Bara non en général parce que ñaan lu lay wax quoi wa non mom ñaan non du ben du ñaan ñaanut mm-hmm. ñaan lu wut mm-hmm. voilà benen benen benen catégorie la mom ah. serigne la bo xam euh, ci limi wote moy mooy sayxu murabbi wala bok serigne dara alcorane man dina jangal alcorane dina ñaan waaye moom mosoo ko éviter mu ne ko kaay waxal ma si ñaan moom yi wax wala dara. Eh. en wootewul ci affaire ñaan. chef religieux li doon woote mooy chef religieux la. gars yi déglu leen mm-hmm. moom sëriñ la boo xam ne euh, ci li muy woote mooy sayxu mu rabbi wala boog. fit am na ñu ko yàlla may. fit am na yoo xam ne yàlla da leen ko jagleel ak sañ-sañ mooy sa sawaay sawaay yi muy wax si ku ma xamul mais nañ nañ nañ dawal rek man moom man moom duma taay man duma taay rek xanaa am ma ñàkk jot ma ñàkk jot wala ma bañ leen a tal mais su ma leen talee ba toog moom sama temps laay jot sama temps lay jël jël nak lu gudd vidéo bu gudd nek ci ba mu jeex sama nek ci mu dawal ci limi muy moy mooy sayxu wala hmm. bok serigne daara alquran hmm. to man dina jàngale alquran dina ñaan hmm. waye mom musoko éviter mu lako kay waxal ma si ñaan moom mi wax wala dara en tout cas wul ci affaireu ñaan li doon woote moy chef religieux la sëñ Modou Lo Ngabou chef religieux Ah, gars yi loolu la doon woote ñu ñoo si bokk yam doomu sëñ bàyyi sëñ daam loola bàyyi sëñ daam loola doomu Cheikh Ibrahima loola ñooñu sëñ Touba maamam moo daan ànd ak Serigne Touba sëñ Modou euh, li ma mën a gàttal rek ci gàttal mooy ak njabootam ñoo am ay problème ci seen biir xëy na demee sago ba lu ci warta am am ci rek voilà mais sëñ Modou moom ku baax la voilà. jabootu sëñ Modou ñoo am problème bala la cay xew-xew si waaye nag sëñ Modou ku baax la gaay yi man du gis nga waa ji day analyser de ba tey day analyser day analyser boo ko laayoon tey si c'est <laughs> ça lay waxe beneen attitude lay waxee te aussi tamit dinaa leen ñamal lu ma jot a waaw jàngal si sawaay si diggante sàllangaari buuru ngeere ah lamtooro ah alwaar ennemi numéro un Ousmane Sonko ñu dawal naka nga gisee situation bi ñu bëri naan euh, dañ ko war a sutura euh, ñeneen ñeen pourquoi koy vidéo ñen big taf big taf euh, big taf naka ñu gisee situation bi ñu bëri naan euh, dañ ko war a sàng sutura ñeneen ñeen pourquoi ñu koy vidéo ñen naka ñu non sàng sutura amu ci xam nga sëñ Modou deful dara voilà hmm. waaw am nga ci lu la leer non xam nga man yàlla dogal na sëñ Modou musuma am nga ci lu la waxal waaw wala déet mais yàlla bu dogalee tamit <laughs> waaye eh. ça va dugg nga. voilà waaw. am nga ci lu leer. non xam nga man yàlla dogal na Mor ko gis. sama mbokk la nag papaam bari na lu xam man. ci ñaan moo xamal bàyyi sëñ daam loo. baayam man dama ko daan fréquenté bu baax a baax a baax a ak doomam man ak doomam ju ma maaseel xaw ma bi ko ci wax Cheikh ak ay khadim jang la xawma deku daan joge jurbel ñooñu dañ daan fréquenter pa bi pa bi dafa amone kësfu am xam-xam papay papay kooku xaw ma ko nak man mom ki mom ci bopam xeyna temps bi may nek parce que kooku man mako mak mag sëñ mom xalé la temps bi may ñew fofu man na am du won mak mom wala ma nga won ci dara ja di jàng doomu mbaay sëñ dam loo la <coughs> sëñ nga bu siw sa bu safinatul aman moy turondom moko yar ci bir kërëm euh mo def deful ndax am nga ci lu leer yeen ngeen fi fi tontu bi yegg mo def wala deful ndax am nga ci lu la leer Cheikh Bara mo developer li yeb ci saway li am moy gaa ak deug la gis naa ne am na ay audio yoo xam ne boo ko dégloo di nga xam ne kii kat wax dëgg yàlla sëriñ bi la mooy wax. jeex àndiwaat ko noonu ma koy gaa nag dëgg la. naa ne am na ay audio yoo xam ne boo ko dégloo di nga xam ne kii kat dëgg yàlla sëriñ bi la mooy wax. Hmm. Euh, vidéo rek la ak ap ben appel vidéo bu appel vidéo ni nga gis na serigne bi mi ngi def appel vidéo euh vraiment nak boudé dang ko xamone da ngay jàpp ne kii du sax wax téléphone ak yu mel noonu lool nak loy ñortu ci nit la voilà xeyna talibé choc biñ am moy audio yi ak appel vidéo bi mu def les perdants ñooy ñan ñan ñooy perdants où sont les perrains taalibe yi ñooy perdant yi leen sama gars yi parce que nag man moom lii moom lii man dama jaaxal quoi ci Sénégal sénégalais sénégalais dafa garaaw sénégalais day jóg yow génn këram sangu ba set dem kër jàmbur fekk fa borom kër gi nako jobal jobal ko bopam waw sénégalais non lay def waaw day dégg nit musiw siiw diko di ko xaar ma dem ba am li nit ñi am booy top sëriñ wala loo mën di top topé ko xel parce que gaay kën gënul la xam yoon bi yoon bi ah ñëpp yoon bi ñëpp si télé kenn xamul yoon bi instant bi nii ay làmbatu la da ngay làmb daj puus xëcc mu nekk xéwal des fois nga làmb daj puus xëcc doo xam lu muy doon nit mënul gars yi làmmiñ lañ yor rek ak xel di xalaat di wax di am gis-gis yow gis nga sa waay fu mu féetee ak lu muy gisee gaa dëgg la gis nañ ay dégg gis nañ ay vidéo problème bi mooy taalibe yi choc bi ñu am. Euh, li ci am solo te am solo mooy bu donte ci lislaam lañuy wax ñun kenn du ne dafa tëdd soxna si wala da dem ci soxna si en tout cas nañ ay ojo am nañ ay lu ma xamul. waaye loolu tamit dafa doyul rek ci nga léegi kii kat ku bon la. voilà parce que ñaari version laa ci am mooy dañ ne dafa am soxna si jaabur su nekk ci kër gi mu doon wax moom. am na ñeneen ñu wax ne dafa am so taalibeem boo xam ne soxnaam taalibe bi dafa gaañu soxnaam nekk fa mu koy labat ci mu koy labat bu dee looloo nag am na ci droit. nit moom même mu dee. gars yi droit yi tàmbale na de lu waaye def am na sa droit Cheikh Bara mu ngi fi. xaw nag noonu koy dégge mais instant bii nii lu waaye lu waaye def am na si droit quoi parce que Cheikh Bara Ndiaye mi ngi fi da kay da siy jàpp mais nag boo koy def na nekk nga nekk sëriñ wala ñaankat wala wala nga xaw ko jege sinon du la couvrir de <laughs> lu garaaw laa leen du leen couvrir ay ca sëriñ Euh, bu sa soxna gaño bu nobe sa soxna li gën baax mu labat ko mais yoyu du lu am problème man bi mi doga am yegna ko lolu lolu yagna afa nga tabaski la. Mm-hmm. wona xalé yi ko si xale yi ci bopam wona len boba affaire bi ci même jour la ko yek mm-hmm. ma téléphoné len ñu wax ma mané len nit sa soxna sax boko ko muy muy ndialo nga xam ya ko tak mm-hmm. nga fekk ko muy ndialo amna no xamni boko ni bëggé faje yow ci sa bop yow ya dang ci dess ki yeena a njortu ne yéen maanaam seen sëriñ la dem nga ba jortu ne du ko bax bàyyi ta dem ay affaire du yor ay vidéo ay publier dañuy tass daara jek yoy bu luñ ci dugg defe naa ne ku tudd Xaadim Mbeng la ci doon waxal mu mu ne ma wa wax nga def conférence de presse mm. waaw mané ko mané ko tek leen lepp ci souf mu ne ma tek naa ko ci souf mané ko ma wat lok ko mu watal ma ci sëñ touba watal ma ci sëriñam ci lepp mané kon baxna ñu togaat lu mat werr xam naa ay affaire pelante moo ci am booy yu mer génne sànni ko ci mbedd mi. booy yi wa. booy waa yan booy la. du booy de taalibe yi lay wax booy yi taalibe yi lay parce que problème bi mu amee avant tabaski après tabaski xooma Cheikh Bara moom mii moo booy yi ñoom ba booy teg affaire bi si suuf. mu am waajum si woo waajum si woo wax naa moom waa ji waajal ko ne affaire yi bàyyi na ko teg na ko suuf mais <laughs> non yow problème non man man man damaa yéemu si yàlla oh man damaa jaxasoo nii <laughs> parce que lii lii kenn ko léeg rek lay yow ki kii tàng lu mu wax li mu jar a wax yëpp jaar na si jël wax naa ak booy yi ba booy explique moom xam na li xew de mais li xew nanguwu ko parce que mi conseil booy buñ dugg si tas daara ji <laughs> non mais mais nii booy yii nii ma gis ay baal lañ xaw ay mag lañ xaw ay paa lañ mais man moom su fa yàlla boole woon moom jamono jii nii moom damay dem sonné ba mais damay dem. parce que man moom am naa fulla boobu ba pare su ma démissionné dem damay campagne campagne campagne nag bu may campagne mooy bu gaa yi jege foofu man loolu lay xalaatee parce que man problème bu amee man duma jël problème bi di farfarloo damay damay dem damay sol mbubb ki ki am problème bi xool bu nekkoon man lañ ko def wala man la commencé je vais réagir hmm? noonu la àttee tey man su ma ate ci place ñu togn lay ate parce que mënoo jël sa yaakar aduna ak alakhirah den ko nit bay muy doxalee yow ni lo xamantene bay aduna àdduna yëpp teg nañ ci seen bëtt wax si expliquer ci hmm yi capable ba dé wax ci ay wax yu day jege man xamna né ne en tout cas fiñu tollu ni ni ni ni nii nii prend jël leen seen responsabilité de ci seen àdduna ak seen dund gis nga jamono ji boo duggee cent kaso ku la fa mun te génnee hmm? <laughs> boo jàkkaarloo yàlla bu ngeen jàkkaarloo yàlla yaakaaruma foofu mu amal la fa njëriñ quoi waaw léegi nag bëggulu yomb moom weesuwul nga jël sa dund aj ko nga jël sa alaaxira ah jox ko aadama yaakaar ne dina baax ba pare xey di lijjanti sa àdduna yow waaw ku la mën a sa alaxira ah kooku war na mën a àdduna bi quoi àdduna bi waru ko jaaxal te fii nii yooyo fi bëri te sénégal a ngi nii xool leen sénégal dund sénégal gaay gaay wax leen xool leen sénégal nu ñuy dundee xool leen Sénégal dund bu tardé dund bu metti bi ñuy dund yéen yéen xam ngeen ne Sénégal Sénégal demul de te am na fi ñoo xamante ne senegal dañuy lijjanti lijjanti nañ alaaxira gaay ba pare waaw mais fii da leen të philosophie nag bu nekk danañ ko dugal seen xel esprit xalaat bu nekk dinañ ko dugal seen xel théoriser leen pour ngeen gëm ne yéen dangeen nekk ci àdduna bi pour tumranke bu ngeen deewee ngeen fayeeku mhm. man loolu man dalu sama xel moo tax sama dund sama alaaxira non joxuma ko doomu aadama de lu leen neex nag catégoriser leen ma nee leen sawaay lii la wala lee la yenn a xam waaw mais man tollatuma foofu yeewu naa ci yeewu naa ci sama life sama dund sama alaxira nit def laa si joxul laa si xajalul ba mu siy jéem a lijjanteeg dama garantir waaw parce fii nous sommes nous tous nous sommes pareils dañuy xëy di liggéenti dépense boo ko amee dépense wàcc la xolal yaa ngi lijjanti beneen dund noo yokkee xeetu seen Muhammad ah, sallallahu alayhi wa salaam loolu yëpp ay prétexte la kon nag gaay yi yeewu leen jóg leen hmm, xalaat leen gaay yi dañuy tax seen maande <laughs> seet ñu booy ñoo ko génne wala dafa am feneen ñeneen ñu ko génne. non xam nga ni mu demee moom ak njabootu biir njabootam la. waaw ci njaboot gi la njaboot la. ñenn ñi ay bëkk néegam lañ. ñenn ñi ay ay safóoram lañ. ñenn ñi kenn ki so maanaam soxna si borom këram defe naa moo ko fa yebaloon mu ñëw fa di togg ca kër ga. Mm. ak keneen koo xam ne borom këram dafa nekkoon gaañu mu yor soxna si ci biir kër gi. loolu mm. la demee ñoom ci seen biir ñoo am ay jafe-jafe mais yooyu du problème. Mm. te jàpp naa ne dinañ ko mën a régler bu bu bu yëpp jàllee ndax ñunu neen la te mënon nañ ko régler ci ñunu neen kessé ndax man lima naron moy buma bu ma tabaski jee Touba dem gis sëñ bi gis xale yi bu ñuy tagaliko ñu tagaliko bu ñuy and ñu and te baña jëm kaw wa parce que dafa am yo xamni rafetul rafetul ci yoonu mourid rafetul ci bir ay nit rafetul ci borom boroomu njaboot ëlëk bu ëllëgee mu mag gis na ki mo defon li sama baay wala li histoire ray dess dal motax nit lepp loy def rek da ngay xol na mu gën a nga def wa ta nga tay timit waxna ko xalé yi ñuy bàyyi xel ki ñu boole parce que nee naa ko sëñ Modou mii ngeen di wax su la ne woon kaay ma woo la ci sama baay nga bañ su la ne woon kaay ma woo ci sama ndey nga bañ bu la woon sama jëmmi bopp ji ci laa lay woo bu ëllëgee yoonu kenn nekkul ci yow sama yëfi bopp laa yor doo ko nangu faw yonent beek ak sëñ ak yàlla moom ci lay woote. est-ce que du sëñ Touba mi ñuy tëkkaleeg suñu bopp moo ñu yóbbee la yëpp. te eh, sëñ ko tëkkaleeg sa bopp. waaw mooy euh, euh, euh, ñoom ñi nga xamante ne parfois dañuy jiitu dem ba bay taxaw taxawaayu taxawaayu suñu borom wala ñuy taxaw taxawaayu malaka ngay andak ak ay bëkk nek ñom ñu bëgg di def la yalla bëgg nek ñom ay malaka talibé instant bi am ngeen problème de ene taw taw way malaka la la gaay wax est-ce que loo nekk bëgg nek wala di ànd ak sëñ bi des wa nga bëgg taw taw sëñ bi taxawé place yalla ñom ñu taxawé tànk taxawaayu malaka de ngeen sawaay moom moom tamit ku dangereux la ci Sénégal mais du ngeen si xamagum dara parce que ñi ay tueur en silence lañ ñu <laughs> balaa ngay comprendre rey la mooy jàll nañ waaw ñi paaka ginnaaw lañ lay rendee ñaan ñi xool leen déglu leen ñoom ñi nga xawante ne parfois dañuy jiitu dem ba bay taxaw taxawaayu taxawaayu suñu borom wala ñuy taxaw taxawaayu malaaka ngay ànd ak ay bëkk néeg ñoom ñu bëgg ñu def la yàlla bëgg nekk ñoom ay malaaka non loolu loolu loolu amu ci sëñ Tuubaa moom sëñ Tuubaa moom ku ko xam ne ko tëggaleeg nit la ay nit lañu ñëpp ay def nit voilà nit nit buñ ko ci génnee dara ah, nit kay nit nit kese la lii su ngoonee nit nit rek moo baax moom kay ñàkk a doon nit mooy mooy musiba mi waaye doon nit rek parce que àdduna ku dem àjjana nit la fay yóbbu de ku dem sawara nit a la fay yóbbu mm-hmm. waaw yàlla dugalul kenn àjjana eh, eh, eh, yàlla dugalul kenn sawara yàlla dugalul kenn àjjana mm-hmm. nit ñi rek ñoo yóbboo àjjana ñoo yóbboo sawara mm-hmm. waaw loolu nag xaw ma dégg nga li ma waxam déet ah, waaw am na ñu koy weddi <laughs> <laughs> nañ ko ah <laughs> dégg nañ la mais nga détaillé dégg nañ ko mais dañoo bëgg nga fii fii gars yi waxatuñ sax waxu nit mais dafatuñu jëfu nit léegi comment cela veut mais dañuy xëcc di wane ne ay nit lañ pour yow génnee la ci sa nite waaye del utiliser jëfandikoo sa xel ak sa xalaat ci seeni wax sama xarit dégg nga ko sa waay wax ah, loolu nag xaw ma dégg na li ma waxam déet. dégg nañ la baax dégg naa dama am na ñu koy weddi da waaye dëgg la de. yàlla mais yaakaar nga ni lii daf koy. Hmm, bu doon ñoog yàlla dong ñëppay dem àjjana yàlla bu taxawalee am jaam ci kan. mu ngi koy eskewu mi ngi eskewu mi ngi waaru bég taf mi ngi waaru bég taf.

da nga togn ko togn nit da nga soxor ko ron soxore nit ñi kon yow yalla amu amut tok yow affaire day lijeenti sa digeenti nit ñi bam xol ba xam rek sa digeenti nit ñi waye manam pass bu gene aljana la la am la andi nga pass dem aljana su fekke pass bu andi yóbbu sawara la am nga nga pass dem sawara kon yow yalla moo yàlla deug dëgg moo la bind waye nak li tax mu lay lak boko delo delloowaatee ci nit ñi nga ko jëlee mm-hmm. li tax mu lay mu lay mu lay mu lay mu lay tabal aljana boko àjjana mm-hmm. ci nit ñi nga ko jëlee mm-hmm. kon donc doomu aadama mooy lépp ba ci àdduna ji ñu nekk. tey képp maanaam képp ku ne. lu ma jaar damay dem mi ngi mel ne da ngay gis koo xam ne fii man damay dem àjjana man àjjana laay dem damay jaamu yàlla mais man du ma topp ci ginnaaw nit. loolu mënut a nekk àjjana àdduna ji képp ku dogo pourtant àdduna ji yàllaa ko moom ni moomee àjjana suñ morom ji boppam moo dogal ne àdduna ji ku fiy dikk ci nit ngay jaar pour dikk fi am kenn ko bo génnee ci tali bi ko la romb rek ci ñaari nit ñaari nit la jaar dik ku dogu won ci ne duma jaar ci nit way dana ñew aduna do fi ñew waaw ku dogu ci ne dana dem al-akhirah te aljana ja way duma jaar ci doomu adama do ci dem mm. waaw suñ borom leppam ci nit ñi la ko def dama koy message toujours ne mi ngi mel ne Macky Sall mi préfère préfère Louga ba ba nekk Louga ka fay Macky Sall mm. waaw ñun ñoy préfère ñun ñoy aduna ya, ya, ji manam Eh, eh, inna jaxalnaahu khalifatan fil ardi waaw deng ina inna jaxalna xalifatan fil ardi borom xam-xam yi tey sama waa suñ borom leppam ci nit ñi la ko def da ba message toujours ne mi ngi mel ne Macky Sall mi préfet préfet Louga ba ba nek Louga ka fay Macky Sall waaw ñun ñoy préfet yi ñun ñoy ñu ya, ya, àdduna ji maanaam euh, préfet ca Louga fay Macky Sall jaamab yàlla ci Sénégal <laughs> doo ko ñemee wax lu tax loo ko ñemee wax du ko wax de préfet ca Louga moo fay Macky Sall jaamab yàlla ci Sénégal moo fay inna jaxalnaa khalifatan fil ardi waaw Deng. aduna ji yalla ñun ñoko fi nekkal kon bu nekké kan yalla ci ko suuf nga ne doomu aadama hmm. waaw waaw force la kay hmm? waaye mo koy tabal ma doomu bo nekké do ma aadama rek bok nga ci xel khalifa xalifa yàlla yi waaw su ma radadna asfala safilin nak man na am hmm. waaw moy man nga wacce sa bop ba yam ak mala mala yi kon grade boobu day ah. dañ après. du dañ. non xam nga toujours dama koy wax nit ñi ay catégorie lañ. toujours ma damay tooñ gars yi ma ne leen population ak société bokkuñu. maanaam nit ñi bu ñu nee population Sénégal bi. dafa am nit ñoo booy wàññi population bi mën ngaa wàññi seize millions. mais booy wàññi société bi dix millions ngay wàññi ndax am na six million yoo xam ne ci population bi lañ bokk waaye duñ bokkuñ ci société bi. Mm. société bi pour nga bokk ci da associé day am looy jariñ société b nga doog a nekk ci société bi. Mhm. population nag mooy ngay lekk kanaan ñi lay wàññiwaale ci dëkk bi. ci ay kàllaamaam dëkk. waaw. <laughs> ci pour tëj pour tëj parenthèse boobu noonu jàpp nga li ñuy am da koy yàqal wala lu koy yokk la. lii am. Mm. waaw xam nga yàquleeg yokkule moom daanaka loolu amul. Mm. waaw daanaka loolu amul nit da ngay nekk ci li nga war a nekk rek. loolu mooy mooy mooy mooy mooy yokk. Mm. boo ñàkk saa boo ñàkkee nekk ci li nga war a ñàkk a nekk yàqule nga. waaw lu ma a nekk daal daaraam jooju këram googu jumaam jooju bu xëyee di ca sëñ Modou Lo Ngaabu Cheikh Bara Ndiaye borom def gi sa waay man nag damay ragal taalibe yi jóg <laughs> contre carré sama parce que nag mënoo ànd si suuf lijjanti problème bi ba problème bi kalaate nga génnaat di amat discours boy andi te discours bu démé ni si layal doomi aadama jo xamantene dafa am lu ngeen bok hmm li ngeen bok lolu mo waral yow nango bugo gis ne li mu def teguwul ci yoon lu mm-hmm. tax pas que dafa am lu leen bokk man dama yéemu ci yàlla nekk li mu war a na ci dara yàquwut Sa bu ko aduna jatte nak bam bam ba wan gannaaw yoy rek yàqule na loonte dañu jël milliard tek ki loxoom yàqu na man mi tay suma ñewon Dakaru gi man na ma am 10 milliards waye bu ma tojee làmb ji am ko ci yàqule na mm. waaw ndax xaru ñuma fofu waaye su ma tojee làmb suma ma tojee ay maanaam su ma koy su may am 10 milliards ci làmb ma am téeméeri junni yoo xam ne alxuraan ak kurus moo ma ko may moom moom ci laa koy toje waaw waxoon gaay jëli ji leen alxuraan kurus gi nga may xaalis si la ko yaakaar hmm? Ya Allah, yaulen, leen fépp leen xool déglu sumbulu bam bam ba muy sëy man mii tey su ma ñëwoon ndakaaru gi mën na am dix milliards waaye bu ma tojee làmb ji am ko ci yàqule mm. waaw ndax waaye su ma tojee làmb su ma tojee ay eh, maanaam su ma koy su may am 10 milliards ci làmb ma am téeméeri junni yoo xam ne alxuraan ak kurus moom ma ko may moom moom ci laa koy toje waaw waxoon naa ko sumbulu ba ba ba muy sëy ak Ablaye Diop ma ne ko boo bu bàcc lii bu tojee làmb ji hmm. def na ndam waaye yow sa doom bu tojee làmb ji échec nga parce que ah, du benn waaw dañoo bokkut moo tax yàqule yi yàqule daanaka amut li lay li ngay wooyee yàqule am na koo xam ne moo di Sénégal gars yi bëgg nañoo am doomi mbër mais bu dul Balla Gaye bu dul Modou Lo bu dul champion yu mag a mag yi ñoom bëgguñu doomu mbër boobu mhm. sénégalais bëgg na am doomu woykat mhm. waaye bu dul Wally Seck ak ay masam ak ñi mel ne moom dama bëggul waykat boobu sénégalais sénégalais bëgg na am doomi footballeur doomi joueur mais bu dul l'enfant de Bambali bëggut lay teg soog teg la soog xolal bun xataal la nel li doo si jëlee ndam di doo si tekk lii fol ak nangam nangam xoolal ba nga xëy nag xolal dégg ballon d'or wala xoolal fayee ko ay million nga gis leen ñooy taxawaat journaliste yi àndil leen micro yeeg télé yi xoolal ñëw ñu su <laughs> lu garaaw laa lay wax de booy bi sax dañ koy cabaxal na ko yow ndax say parents ba <laughs> bañu woon au début mu ne au début kay nga gis booy bi booy bi tamit day rafetal au début kat samay parent bañoon waaw waaye nag comprendre duñu woon waaye bañ demee ba comprendre woon nag eh, mooy Sénégal defaroom li ngay woy am na ko ne moo di yàqule Euh, euh, loolu loolu loolu am na solo cheikh bi euh, ñu ñu ci beneen kaaram mhm. ah, xam nga li ko andi cheikh question question sëñ Modou Lo Ngabou bi moo yegg si ba fii sang na ko ba set jël tuuma jox taalibe ñoo ko déggandoo sosoluñ kenn waxuluñ kenn lu mboxul yaay woowee sa bopp analyste politique wala nit ñee la ko duppee waa nit de looy woowee sa bopp daanaka du siiw li la nit ñi woowee mooy siiw yow jàpp nga ni analyste politique nga ah bu ko nit ñi jàppee rek doon naa ko non mais yow yow en personne est ce que jàpp nga ni kan analyste politique man man damay analyser ci lépp lu ma mën nekk ci àdduna non mais sëy bu tasak sëy bu kalak sëy bu yëngoog ñëpp rek waaw bu bëgg a takkum ragal sa jabar. jabarak promotion nga li mu jot a lim nii mooy jàngaloo gars yi ah yow joxe numéro rek a si des waaw yaakaar naa bisu ngoon es dina ko <laughs> say bu tas say bu yëngu ku bëgg takk ñaareel <laughs> ragal sa jabar boo waaye sax baara njaay mu génne la ci waaye nga fay dafay liggéey ah non d'accord, non. c'est cadre de la mais la de la place on depuis très longtemps politique bon Euh, comme ni nga ko waxee wala da nga gis faay boo xam ne yaakaar nga ne war mën nga apporter euh, apport apporter sa sa sa sa pierre à l'édifice ci li nga xam ne moo am exactement. waaw xam nga analyse moom li may. fit nga am si doon sëriñ dama ci analyse politique. non xam nga sëriñ moom man dama ko judduwaale mënuma koo ñàkk doon. Hmm. waaw te it dinaa la wax dara mooy xam-xam bi ma jàpp ne mooy xam-xam bi gën a noobul ëpp njariñ. Hmm. ci kaw suuf donte nag ñi koy def. Hmm. xamuñu liñ yore. ba tax nit ñi bëgg leen a jàppe bañ leen a jàppe dara mm. dégg nga mas na maa seetaan buuba nduur mii ci télé bi mu ne ñiy wax ci garab yi wolof yi duñ fi ñëwati nangam nangam ma ne ko yow ma ko doon tontu ma ne ko yow loolu boo jàppee ne du xam-xam rek amoo xam-xam parce que tey yaa ngi nii yow mit taf yaa biisu góone ci réew mi ngeen juddoo yaroo fi màgge fi mm-hmm. man mën naa leen a wax fii weeri garab yoo xam ne fii lay sax sax ci réew mi te mosoo leen cee dégg benn xamu leen ko fii ne yow garabu ndandoom xam nga ko mm-hmm. mbaccar xam nga garabu. Euh, waaye olof yi ngay làkk pour la mbàccar garab la. waaye xëy na boo ko mbendam garab la dafa am garabu mbendam. Ah, am na am na mbendam am na mbàccoor. Ah, am na am na am na am na mbàccar. am na dambal am na. ay dambal xam nañ ko garab la dafa am garabu mbendam. am na am na mbendam am na mbàccoor. am na am na am na am na mbàccar. am na dambal. am na ay dambal xam nañ ko moom dambal xam nga ko waaw mas nga koo tiim nii garab gi waaw garabu waswasoor xam nga ko ak suuf ak xëbatal ak yooyu noonu mais xam nga yooyu parfois loolu mooy xam-xam gis gis garab yooyu ngay gis nag nga xam ne yéen garab yooyu ngay gis nag maanaam xam-xam la yoo xam ne garab gu ci nekk boo demoon ba gis eaux et forêts yi mën nañ laa téye un mois di la jàngal garab gi hmm. loolu xam-xam la bu wir boo xam ne xam-xam féetewu ko kaw hmm. mais ñi koy incarné te xamuñu ko dafa bari ba pare ñi ko doon ba noppi ñu fexe ba nax leen ci complexe loo leen wan leen ne man damay gis toujours nit bu may xas xaw ma waa <laughs> daa gën jaaykatu sunguf d'accord jaaykatu mbaxana daa gën jaaykatu sunguf danga waa taxawal ma laaj la rek mosoo gis nit ku ñuy xas naan ko yow jaaykatu montre nga mhm. mosoo analyste politique nga dañ koy lay gis nga koy hmm. sunguf jaakatu jaakatu dàll ak agent eaux et forêt hmm. lii mooy problème bi gaa duñ bu fekkee nag danga yor da ngay copier coller xam-xamu copier coller am na de am na ñoo xamante ne nag copier coller yor copier coller xam am na de gars yi ku <laughs> ñuy xas naan ko tak jaaykatu or nga. pour lan ñun ñu jàpp ne ay am xam maanaam garabu ngeer xam garabu poftan mën a jël kenkiliba mën a jël kàdd di ko defar di ko di ko di ko di ko joxe loolu buñ la waree xas dañ lay xas ci loolu quoi non mais mais moo tax da ngay reetaan ba sonn liggéey la comme yeneen liggéey mais pour ñu bañ a génn ci cadre analyse non non liggéey la boo xam ne ke yow mii bu la neexoon suba nga ne wut montre bi voilà ban ban fit nga am ba mën a mën a dugg bi ak xam nga ni mu compliqué ni mu complexé nga ne nga ci nga ci def ay analyse deuxième fois ñu ngi koy posé waat question bi première question bi rek biñ ko li ñu muton tontu lu yëpp léegi posé waat na ko question bi man fit nga am. soit ñeneen ñi parfois c'est pertinent ñeneen ñi pertinent wul parfois ñu ne da nga far wala faro lu la dugal ci politique bi exactement. politique bi dama ko xam yàgg ci. mais sëñ durant ce parcours yëpp waxo ñu ben yoon fo jaaré ci politique. Hmm. politique waaw xam nga politique mo man dama yàgg bëgg information. yàlla may ma tamit ma mën a seetlu ak di seetantal yàlla may ma tamit nit ku mën a wax ci àdduna mën naa laa déglu ban yegg li nga wax bu ma toogaa doon fukki at boo ma ko laajaatoon ma na ne lii nga nii nga ko waxee woon la demee fii la nekk loolu moom yàllaa ma ko may yàlla def na tamit fréquenté naa ay politiciens ay Moustapha Diop Mor Lo Moustapha Cissé Lo ñoom ñëpp fréquenté naa leen dégg nga ba ci 2010 Moustapha Cissé fréquenté nako lu bari. wa APR rek nga fréquenté wa APR rek motax tax man man daanaka wa APR la sax. man mm-hmm. ko ni dem dama gis may ngenté mm-hmm. wa APR do nga fa ñew mm-hmm. ben parti. gaay ka affaire la far ba may ngénte sax sama ngénte wa APR rek a fa ñewon est-ce que nekkul wa APR yow ya? ya lay wax hmm ngay xaptal gaay di dugal gaay yi ay ay tuufi doona di am fitu sa sañu wax li ngay wax kon am ko wetir kon sa way fu mu wëru ba mu am sañ-sañ di wax wax yi politiciens yang nag ñoom seen tolluwaay ak gis-gis ragu xolal ku leen la motif sax xol siwal ko waaw ku leen saaga ndey sax sénégalais yëpp di ko dégg di déggaale seen tur hmm? politicien ragalul xalaat leen sawaay li mu wax nii APR rek moo tax man daanaka waa APR laa sax Khaliphone Sall moom moom saagaam yi ñëpp gis nañ ko yëg nañ ko dégg nañ ko hmm? pourtant <laughs> Sale Ngaare da koo da fat te si njabootam la bokk hmm? kon Cheikh Bara sori woo njaboot bi de waaye nag yaa ñëw confrontation de boo toogoon wal li ngay wax dina tegu ci yoon parce que dañ koy teg ci mais confrontation fii <laughs> gaay lu leen neex lañuy dikkee réew ya. damaa gis muy ngénte waa APR doo nga fa ñëw benn parti ñëwu fa waa APR képp ñoo fa dikk kon donc man waa APR waaw ah waaw boobu dinañ ci dugg yaay woon nga def ba nekk analyse politique non analyse moom yàlla dafa dogal man damay ñëw di waxtaan sama sama métier moo ma indi ci télé man Cheikh Talif wax naa ko fii ay yooni yoon moo ma njëkk ma yow may waxtaan ak mom toujours mu ne ma yow il faut ma génn na nit ñi xam la ci noonu lu mat at ma koy may xaw a ragal daal ci famille beeg sama mag yi góor yi buñ buñ ma gisee tam ñu woo ma tere ak yooyu laa doon xalaat ma rek ma fexe ba def ko bi ko defee di ko def di ko def di ko def yàgg wal fajiri ñoo ma jël en tant que chroniqueur boo xam ne wàllu garab laa doon waxtaanee. Mm. comme tey da ngay ñëw ñu ne luy luy maye karaw luy faj luy faj soj luy dindi yaram wuy tàng luy dindi yaram wuy xasan luy dindi séré luy tax bir bu reuy dañ yoy lolu la doon def chaque jour ma indi voilà genn garab ma indi ko jàngale ko comme Samba jay limi def légui nak euh day def nak suñu ñëwé comme niñ togué won fi di waxtaan avant plateau bi suma waxtaan ak ñom nak ci lañ gisé ne man amna benen xam-xam bu bokku ak garab yi ñu pousser ma ci ma di ko def mo la révéler ci en tant que politique waaw d'accord lu ko jitu nak Cheikh Taarif daana def euh su benn histoire amé suma ñëwé ñëwee tamit mu jël ma ne waxal ma ci manam par exemple comme histoire Sénégal bi fi doon bind. mu amone ay problème murid yi kaas fi ñee di kaas fi kenn ko nek naan bind liñ ma bindal normal moy bi ibater cham yalla nako na yeeram doon bind. ma defar na ci benn waxtaan woo xamante euh waxtaan la wo xamne ñu bare bare bare dañ ko doon rafetlu naan ma li dañ ko war def. donc lu mel nonu daan na ko def nak mais xam nga dañ ko da lan soré ba nga xamne fessutul mais ci Walfadjri nak la ñëwé mu fess ma nek ci di ko def nit ñu bari nak di ci di seen bop ba mu yegg fo xamne man xaaruma ko won mm. parce que ñun ñi ñi analyser waru ñu ñu analyser ñun ah bon waaw ñi ñi analyser euh c'est que c'est que parce que donc loolu non loolu fi la bok mo manam ñi wax français nga bëgg wax ñoo ñu mënu ñu ñu analyser ñi wax français nga bëgg wax non manam wax français du loolu mais ñam nga bëgg wax parce que lérum fofu la bëgg moy xamoo xam nga société da koy xam mm-hmm. bok ca diko dund mm. nit di am yëg-yëg bi société bi di yëg loolooy tax boo jëlee dara analyser ko nit ñi day mel ne kenn ku nekk li mu bëggoon a wax waxal nga ko mais su fekkente ne yow da ngay dem jël liifaru euh, tubaab yoo xam ne kee nga Bordeaux kee nga fee Karl Marx nangam nangam liir liir liir di wax li Karl Marx wax loolu waxaloo ko waa Balloo ji waxaloo ko waa saajo waxaloo ko waa Mbàkke maire yi nekk fii di jaay keccax waxaloo leen ko dégg lay say lay tasub sëy ca France bokut ak lay tasub sey ci Sénégal. man de big taf li poser la ba tey dafa melni ñew goot ci. limay wax ak leer. <coughs> su ma jëwoon gars minutes <coughs> sëñ bi wër rek. <laughs> gars yi jommi ngeen ne tey da ngeen di confrontation moom mais sama yàlla may na ko de xam-xam moom am nga ko te nit ñaan ñi ànd sec ñu la laaj question bi loolu xam-xam la di la poser question ngay wër di <laughs> wër di jàdd koñ di damm koñ di yegsi bay waaj question bi puus waaf nii oh. xam-xam la de. non non mais li nga wax yaa ngi wër-wër. lii su ngoonee lay tasub ca France bokkut ak lay tasub sëy ca Dakar. lii tas sëy Dakar tey ba ngay wax ci Sénégal. moom lañ lay laaj politique. bu baax a baax amul politique sain bu ma. waaw foo jàngee politique. nekk ci réew mi ñu ñuy political ñu leen seeral xam nga yow mi xamoo artistes yi xam nga dañ koy jàng waxuma na xam benn waykat boo xamul daa man bu ma xam bu ma ah, xam ah, léegi nag ñoom ñoom hmm. waykat yi ñun la ñuy wayal ñu xam leen bëri ñun la ñuy bëri ñu xam leen politiciens yi ñun la ñuy xam nga ne politique dañ koy jàng xamuñu bëri yëpp xamuñu ah, artistes comme dañ koy jàng man da jànguma ko waaye léegi yow lu tax nga ci wax wax yi rek yi nga wax ni dañ koy jàng loolu moom gars yi ñaar ñii di ko wax nii xoolal sëñ Cheikh Bara lañuy ñuy jéem a la ñuy waaxu ak yéen leen gëm loolu ne leen science politique da jàng fii na la ma yoro sa réew da ngay jàng loolu ay waxu tubaab la de bisu ngoone science politique bu ñu koy jàng xoolal loolu jamono jooju la jamono ñoom Senghor ak Abdou la mais jamono ji amul science politique amul nangam sangam programme ngay andi teg wala ngay taxaw def li askan wi bëgg loolu nag yaakaar naa amul école bu koy jàngale hmm? bu dee politique science politique ngay wax moom ñoo ñoo tardé réew mi mooy français yi wax na leen ko sànq si biir ay wax mais du ngeen ko nangu seen xel ak seen xalaat yéen a ngi naan Cheikh Bara n'a pas fait les bancs jàngut kon waru wax si réew mi mhm. man lii rek ma metti budul tubaab bi du baax ñi naan budul Sonko du baax ñi naan budul Macky ñu torox hmm? kan moo ko fi mën a remplacer hmm? réew boobu xalaat yooyu jëmale réew kanam si xel naka kenn weddi faro ah mooy lan far ci wax kat bismillah musuma wax di dindi waaw nag actuellement ah, nii politique hmm. bii gis nga démb bi ñu liste bi ñoom hmm. Ousmane Sonko nekk ci tali bi naan non dañuy indiwaat sama liste man xam man ban ban liggéey laa njëkk a def. Mm. mooy ñan ñooy suppléants yi. man man bi may déggee ñu ne ñi ngi ma ko waxee France. Mm-hmm. ci Bassirou Diomaye Faye sax moo ma ko wax. ñu mm. ngi ma fekk ci ban bi ma toog ma ak sama soxna. mu ne ma euh, yëg nga ne dañuy dañoo réciter suñu liste national bi. réciter nañ ko ma ne ko réciter mu ne ma waaw. ma ko est-ce que mu ne ma réciter nañ dañ dañ koy conseil constitutionnel kii na ko ma ne ko. man mooy dem kon lu ngeen dem ci élection yi mu ne ma non sama suñu soppeeku mooy dem automatiquement man xam naa tuuti ci droit ak yooyu ma ne ko parce que dama code électoral yeeg lépp dama koy xam ma ne ko a demee ah ne ko kon léegi kan photo kan mooy nekk ci parce que loolu loolu ñaari liste yëpp man ñett xam naa ne ñuy defaree liste presque. ñaari liste yi benn maanaam tête de liste bi mooy nekk ci ñaari tête ñaari photo yëpp. ma ne kan mooy nekk ci photo bi. mu ne ah loolu xamuñu dégg nga ñoom xamaguñu ko mu ne ma ki xamaguñ ko. ma ne ko ah est-ce que kon dinañ mën a invalider candidature Sonko. ba pare nekkatul nekkatul nekkatul candidat ba noppi photo di des te photo liste bi dafa war a am photo kon Sonko normalement. Euh, man nga ko xaw a considérer sax ku nekk ci suppléant yi parce que ñaari tête de liste la. Mhm. te loolu moo gënoon a yenu maanaam sax li Antoine def. Mhm. mu ne ma noonu man daal noonu la deme ci suba bi ma yeewoo sept heures. waa ji sañ nañu gaay na ko noo falee Ousmane Sonko mu ne si xalaat ak si wax parce que maa fi ne woon Sonko Linguère Sonko nangam nangam lii la leen andi laa la bu Sonko faloo gaay dañuy transhumé mais doon ko doon si bàyyi xel sa waay daa ngarale moom moom transhumé dafa ngarale waa APR la gentam waa waa APR lañ tu comprends mais songoo la puus pour Sonko nekk beneen nit bu mu doonul maam da koy monter parce que Cheikh Bara bu waxee ba pare bu fekkee ne yow muusoo yeewoo hmm, dangay ànd ci li mu wax boo ñàkkee sens waxee comme ni mu waxee li la fay fekk loo ko xam sax parce que moom dafa am garantie moom dañ ko wax te si ay jamono yéen ñëw di ngeen xam lu ma leen wax lan la waaye waxeewul waxul waxul pour boppam mais dañ koy wax te li koy wax loo nag hmm, gars xam nañ ko de Kaolack ak dëkk yooyu. ku mel noonu. ku mel noonu. maanaam popularité mayetul mayetul nga koy jaay doole cim réew. ah dana jàpp ni jaay doole la. pur et lan amul leneen. ndax lan parce que dañ parce que Sénégal gii. ku fi taxaw ne damaa bëgg doon président de la république. ñu tëj ci kaso loolu rek doyul loolu rek doyul jàpp ni jaay doole la lan moo tax nga ne jàpp ne jaay doole diggante moom ak Adji Sarr. tax ma jàpp ne jaay doole la. diggante Sonko ak Adji Sarr. Mm-hmm. loolu bari ñu wax ñu yenn yi premier jaay doole mm-hmm. mooy ab député mm-hmm. nga gis na dafa def affaire benn problème mm-hmm. au lieu nga dem dindi malanum kiir laayam mais nga dem jël ab plainte dem këram di ko ko yóbbul parce que respecté wo député mais levé nañ parlement unité non après suñ ko lanké ne dew ci lañ doga dem dindi evil euh, euh, euh, levé immunité parlementaire kenn wërta woon a jël ab plainte dem ba kër sonko di ko ko yóbbul ñoom ñi ko def xam nañ ko te noonu la Macky la nekk ci réew mi barki démb gis nga fii mu jàpp Abdou Bara Dolly tëj parce que Abdou Bara Dolly député la liñ ko doon tëjee kenn waru ko cee tëj. Abdou Bara mais dinañ ñëw ci loolu. li kenn waru koo tëj ci loolu jàpp Déthié Fall fii tëj. Déthié Fall liñ ko tëjee. mbalaanu kiir laayam mayewul ñu ko ci tëj. Mhm. jàpp fii Mame Diarra Fam tëj. malaanu kiir laayam mayul woon ñu koy jàpp di ko tëj loolu lépp injustice la mhm. te pourtant ñoom Déthié Fall ni ñu leen mën a jàppee mhm. faale wuñ seen malaanu kiir pourtant ci laa nekk nii bu gaa sëli bi ñu ko jàppee mhm. xam nga gis nga vidéo bi ñu mënoote ko pourtant ci auto lañ ko lañ lañ ñu ko yóbboo section de recherche gi fanaanu fa xam nga lu tax fanaanu fa parce que la Déthié Fall moom boo ko jàppee député la waaye moom na dem ci kaso bi. maam jaara faam ci kaso bi. Sonko député la waaye lu mu def dañ koy pelante bu ñëwee ñu jàpp ah këram. dem na këram toog fa la mat fukki fan dogo a wuy ji. parce que député la loolu lañ leen loolu lañ wax ne non député la kenn mënu ci pourtant li yi def moo gën a garaaw téeméeri yoon lañ doon jàppee Abdou Bara Doli. loolu moo nekk ci réew mi. ku ko wax ñu ne faral Sonko. bismillah bu fekkente ne yéen da ngeen di defee ne ñiy wax dëgg ñëpp Sonko lañ faral bismillah non du ñun. Sénégal yëpp ñoo mais yow tey jii xaw léegi tum na du teew ñuy nataal yaa ngi nii toog koo faral. man faruma ak kenn ku dul nekk ci dëgg ku nekk ci dëgg maa ngi a far. yow est-ce que amal fenn foofu am na benn yoon foofu Macky Sall sax. xam ne na wala mais Adji Sarr pourtant bëri gémm na def na live ak Kali. waaw lu tax nga amul léegi léegi léegi la moo tax nga ne moom li mu li mu wax. xam nga li nekk ci téléphone Adji Sarr bi dama laajtee bëgg wax lu neex. Hmm. ci koor gi dama ndogoo ndoog benn benn kilifa ci APR. Hmm. bu ma ko tudd sama xarit la. daf maa invité ndogu ñu bokk di ndogu. Hmm. mu ne ma non boo ñu xamoon boo xamoon euh, liñ yor ci Sonko. waaw bu génnee rek ma a ko non dañ doon waxtaan ci carrière politique gu nit ñi daal mu ne ma non Sonko moom jërul wàññiwaale ma ne ko lu tax mu ne ma non liñ yor ci moom bu génnee rek mu yàqu ma ne Thiel ba mu yàgg ma a ko sëñ bi mu ne ma ko yow koo xam ne nii maanaam mënoo fanaanoo information bu koy yàqal mm-hmm. soo bëggee ne yor nga vidéo bu koy yàqal da nga koo denc da ngay nax nit ñi da ngay nax sa bopp mm-hmm. dégg nga aji sar dama lay jox ay ay ki yu ndaw man buguma won nak <laughs> émission bi vraiment nek lolu parce que ñu émission wax nañu nañ àdduna nag li gëna bon moy ngay wax lu tardé waaw mais si dama tax yow bu ñu egsee fii ni nga bëgg wax né émission mais tardé wu lolu da tardé non ba légui ñu tardé da ah, tardé na mais justement barki mo ñay la gën def direct ma xam justement da am ma xam jallo sax ma xam jallo sax kay dem yoron réer na ko xam na né fënd na ba réer parce que dossier bu demut dikut mom ñom bu dee dañuy gis nga dama lay wax affaire aji sar mm. dama lay wax ñett sortem yu mujj rek nga sétlu ko mm. jour bi

léegi loolu politique lay lay lee loolu lu jëm ci mbirum justice la. noo ko gisee mais ah, lu tax saa muy xaar effectivement Sonko yi. pour tolloole ko ak boppam pour di ko salteel. est-ce que bëggul na dafa ku ko yeewi itam. non non bu fekkee dafa bëgg ko yeewi suba nii kenn aayewu ko mu wax. mais lan moo tax muy xaar ba Sonko def effectivement mitinu Sonko effectivement Sonko ci lay génn. mais kon Sonko da ngay xam ne voilà non non non. en plus booy communiquer da ngay xam ne mën a def pour atteindre sa cible. non non non mbir wax ne moom politique daf ñu wax ne moom bokkul APR. Mhm. daf ñu wax ne lu sérieux la. Mhm. dañ ko tooñ. Mhm. muy wut àqam. kon donc jàpp naa ne Adji Sarr amul nag Sonko politicien. Sonko que citoyen Sénégal la amal problème. kon moom ay effectivement yi Sonko politique gu Sonko yoonam ci. am na benn jour mu naan bi ñu ko falee maire nelawuma kon donc kooko mi militantisme mi ngi bëgg a dugg. xam nga li la wax baax. parce que ñun duñu ay dof dañuy toog di xool nit. moom bi mu ñëwee waxuñu woon ne dama koy xeex politiquement dafa waxoon ne dañ ko tooñ jigéen la dafa bëgg ko jàppale. mais lan moo tax muy seet jour yi effectivement Sonko yi di génn muy tolloo leen moom pour que ñuy indi. gaay gaay maa ngi dem di leen jox day daye fan yi kon les cons feront attention ce soir Mhm. émission bi divertissement la la ngeen ci lalanan lan la nan apporter gis ngeen fi réew mi toll gis ngeen ñi ngeen di déglu ñu leen xel ñu leen xalaat yéen sax leen ëpp yéen sax yéen sax yéen a leen tane waaw xoolal lii rek waaye nag yàlla baax na te ci kanam réewlu bët seetaan leen Amadou Baro Sénégal Cheikh Bara Ndiaye def gis bisu ngone Big Taf gay, gay setan ko fi hein position du fa genn ku fa wax ñu dak la mm-hmm. ñu def ñu togaat fi ñu tok de ko waxat mom kenn momul nit ñi yaa ngi may dégg Sonko ben candidat musul def lolu

ñom ñaar kenn du ci candidat yusuf Ndour dafa taxaw de lal kim micro RTS deng ta RTS ah, ma ngi la ko fii ma tok la lay wax fi ci télé bi Racine tala Racine tala du ma weddi télé télé RTS ko fa tuddu son ko ñu dàq la télé bo xam ku la fa tuddu ñu dàq la nak ku la joxum micro da nga loloy fulal loloy fayda man son ko leg leg yot gi ak noyal gi la koy meree ala fekkine dur lañ ci d'accord wa ko day yot di noyal kon du nga bëgg muy dur di di non non xam nga aduna gis nga bakki Sall doole jëm yor mi ngi koy wan nit ñi bu wéré wéré wér mhm. te ko doole jëm yor wonu ko kenn kon ay discours yow yëpp nga d'accord dama ne dama ne la bala wax lu wér kay Macky Sall bi Macky Sall bi mu kérok biñ ko né ya mom police ak gendarmerie sam na sapp ci nonam képp ku bañ Macky Sall yëng dara mhm. door nañ lay fisk tej nay compte tej opposant yi lim ci tej dama ne la Afrique yep bo boole won président yep li ñuy tëj Macky Sall li mu moko moo 2020 2019 ak tay ji di Macky Sall tëj amul ben chef d'état africain bu ko mësa a ci ñaari at. biñ ko nee Macky Sall police ngi ni ya ko mom gendarmerie ngi nii ya ko mom ku ko bañ yeg nga loolu. Sonko nak nit ñang ko top gone yang ko top xamna ne réew maa ngi kan la ma sa carrière wala mu nan la yam ma fi barki dem bi mi Touré dem Casamance da nga dégg mu ko do fa dugg wala dara. pourtant ñi ñi gëm Sonko la fa fekk kenn sànni yu koy xeer nit ñi ñi dem dem dem dem Fuuta Moussa Bokar Thiam sànni na koy xeer te Moussa Bokar Thiam bu dee dëggay dëgg wërta politique moom Malick Sall agent judiciaire de l' état la. mën de tey man bu ma tooñoon bu ma tooñoon état problème yu sori yi ngay wax nii ak di ko analyser ni ma tiitalee man daf ma daf ma daf ma jaaxal. xanaa comme yow yaa xam lépp waaye ma ba taxawaay laaj la ko balaa ma koy fàtte euh, euh, force spéciale yi nga xamante ne fi mu ne nii euh, am na problème. nee nañ kenn ki dafa dee nee nañ kenn ki dafa rëcc moom moom nu doyee noonu. force spéciale yi euh, maanaam lu ma ci gis. Mm-hmm. mooy loolu amul. l'observateur gi dama koy tudd ñoom ñoo ko créé. koy mm. créé waaw. ñoom ñoo koy bind rek force spéciale force spéciale amul xam nga fan laa ko teg. Mm-hmm. gis nga benn dossier bu sérieux bu amee ci Sénégal. li war a njëkk mooy bu sérieux lu mel ne procureur wala benn communiqué bu jógee ci justice wane na kat ay force spéciale dañ leen a jàpp. Mm. loolu gis nga ko. baatu force spéciale waa l'observateur gi dong ñoo koy topp di bind di bind di bind ba nit ñi dong ñoo koy topp bind di bind di nit ñi mais une fausse information ñoom war nañoo mën a gën a démentir. ñooñu ñoo ñoom ñoo ànd mburoog fëriñ lañ. ah bon waaw. loolu dossier bi dafa neexuta dafa maanaam dafa dafa ñàkk fayda ba waa justice bëgguñu cee génn te bëgg nañ nit ñi gëm ko. ñàkk fayda nga ko jàppee. lu jàkkee fayda la. ah pourtant pourtant am na am amul bu ñàkk fa xam nga non non non du question loolu da nga naan lu tax mu ñàkk fay du question lu tax lu tax ci état bi lu tax dama ne la yow ay force spéciale xam nga lan mooy force spéciale ba pare mhm. ah nga ne da ngaa jàpp ay force force spéciale mhm. force spéciale yoo xam ne kenn yoru ci fetal kenn yoru ci jaasi mhm. kenn yoru ci lu mën a doomu aadama ay cox buñ doon siim gasoil pour bu subaa ñu mën a jël. manque mën ngaa wax ne ma manque bu amul fetal. François manque bu. mais am na eh, fetal mais am na permis port d'arme. ah am na permis bi communiqué bi dañu bi. loolu génne nañ ko Babacar Touré génne na ko ci réseaux sociaux yi ñëpp gis ko am na permis port d'arme Pape Alé génne na ko ki génne na ko. Mm-hmm. am na ko. procureur moo ko tey ne no amoon na am na pare am fekk nañ ma ko fetal nanguwul a eggale li ci topp parce que fetal gu am fetal fetal gu am gu am permis kay jër loolu jërul nga ñu ko yëgal ñu te pourtant fetal gi dafa am dafa am mu nëbb ko mhm, waxu ko mhm, waaw bu paasee kooku nga xam ne garde rapproche la fetalam am am na am na am na am na lii kon loolu du délit léegi lan lan lañ jàpp ci xale yi loo xam ne dana firndeel na ñii dañ doon taalum réew xanaa doona ma cox bu ñu yoroon ab cox kañ lay taalum réew ah kotel euh, euh, cox mi coxu lan la cox la ñuy jël la ma lay wax loolu ab Macky Sall mi moo ko dàq defar ñëpp moom wala boog ñoom Aliou Sow ak ñoom Moustapha Diakhaté képp koo xam ne ba ci Iba Der Thiam képp ku jaar ci maanaam étudiant di yëngal di taal jaar nga ci loolu xam nga yow tey boo jëlee butéelu gasoil nii am na yoo xam ne wur ma ko wax ci télé quoi hmm. mais boo jëlee butéelu gasoil tey sotti di taal bu tooyoon sa loxo bi mën na laa lakk mais da nga koy siim ci cox boo xëyee da ngay jël cox bi xëpp rek taal cox bi ci boppam mooy tàkk loolu lool mooy loolu loolu la rek loolu dong la booy doon defar. cocktail Molotov lañ koy wax ma. mais loolu loo ko jàppee mais tamit wax dëgg yàlla amuñ ci dara parce que trouble kay fu taal. Ah mais xam nga bu fekkonte ne jàmm dafa am. non bu fekkonte ne jàmm dafa am. comme ñii tey ñu toog ñii ba mu yàgg nga dem ci kër nit fekk ko muy defar ay cocktail Molotov. sax mën nga xaw a am looy wax mais loo xam ne mars dafa am ñu ne suba la 17 dañuy def mars soo leen jàppee da ngay xam ne mars bi la ñuy préparé lan moo tax nga ne préparé wu xam nga Macky Sall benn problème lay def. 23 le 8 mars. bi Sénégal yëpp iya, génnee. fekk mi ngi jàpp Ousmane Sonko ñu koy excisé mu génnee Ousmane Sonko. bi mu génnee Ousmane Sonko dana ne dana dana nit ñi génnuñu. force force occulte moo génn Antoine anu wax anu na ko Aïssata Tall Sall wax anu na ko. ñu jógewaat fa Ousmane Sonko wootee le 8 le le le le 3. mooy bi mu defoon le huit le huit le huit juin. fii ci place de l'Obélisque. bi ñu paree ñu xëy suba ne Ousmane Kabiline Diatta daan na jàpp nañ Madiambal ñëw ne am nañ fi vingt-neuf rebelle yuñ ji kon ñi nekkoon fii démb ay rebelle lañ d'accord 8 mars force ki rëcc année moom. ki rëcc. laaj leen ko ñoom. Ah. laaj leen ko. Ah, yow yaay laaj yow yaa xam lépp. non dama ne ki rëcc laaj leen ko ñoom xam nañ li ci nekk nañ ko waxal seen bopp. léegi ko Mancabou lan nga jàpp. dama ne 8 mars daal. Mm-hmm. dañ ne woon force occulte la le 8 juin ñu ne rebelle le 17 ñu ne force spéciale maanaam Macky Sall li mu bëgg a def mooy acte politique yi ñoom Ousmane Sonko di di mëne bëgg koo tuddee acte politique mm-hmm. li mu ko bëgg a tuddee mooy acte banditisme ak acte rebelle waaw ak mm-hmm. acte rebelle te moom acte yi même acte yi moo ko daan def ba jàngal ko ñoom Sonko ñu koy tari tey moom tuddutub rebelle bëgg Sonko ñoom tuddub rebelle Macky Sall ba muy def opposition fuñu ñu talé réew mi bo xolé seen ko fa mu taxaw mo mës fa ñes punu bu mës tak tàkk ñanke wet ga loolu bañ koy def ñom xex seen droit la tay nak robel la tudd lolu mo tass réew mi réew mi Macky Sall mi ngi koy yaq parce que tay ambassadeur bi tok ci biroom su xëyee na jëndal leen ma journal réew mepp ñu jënd ko mu tek bu tayé force occulte lay gis bu suba robel bu suba force spéciale bu suba ay affaire guerre kasam ay ay affaire de euh, ethnicisme waso jola pël nangam nangam yoy la journal yi di jël diko titré buñ koy titré gis na journal yoy xaral gis na journal yoy loolu ñuy jël diko titré tiitre mhm. bu dee yàq image sonko dana yakale image sénégal mhm. parce que tay ambassadeur bi gis li dina né sénégal wóoruta investir wóoruta ñew mhm. buñ jekke-jekke won xol sen réew mi lu mat 1000 personnes di fi dundu dañ leen tey leen fi mom day waja tak tàkk ndax force force occulte yang fi te fekk dara amu ci ben way nga bëgg yakal di yak réew mi dégg lolu dañ ko wara jël teg ko ci suuf ñoom dañuy politique Ousmane Sonko day politique bu leen defee acte politique nañ ko tontu ci acte politique. te bàyyi saa bu leen waxee ñu ne waxoog ñun yow réew mi ngay waxal loolu du noonu. François Makabu naka nga naka nga gisee dañu ko dañu ko euh, euh, boom nga yaakaar ni wala. François boo dañ koo boom dañ koo tooñ boom ko. Hmm, sëñ bi maa ko wax man ci télé bii man maa ko li ngay wax ni est xam nga ni yoon mën la ci fekk. nañ ma ci fekk. waaye est ce que am nga ci ay preuve su ma ci yoon fekkee ci kaw yoon yu tax. dama ne la loolu kay dañ koo rey xam nga lu tax ñu rey ko. Hmm. ñoo ko fekk biir këram mu toog ak njabootam demul mars bokkut ci parti politique gut yoonam nekkut ci dara. Hmm. yow mii mi ngi mel ne yow mii nit ñëwoon rek fekk sa apartement tijji nga dugg rek nga nga tijji rek mu dugg jàpp yóbbu. Hmm. di la bu ndoxataal ak xor ñooñal ba nga dee ci loxo moo la rey. bu mbëkkee miir bi moo ko rey bu mbëkkee poto bi moo ko rey buñ ko torturé ñoo ko ndax buñ ko bawoon këram moo ki doomam bu dee kon lu ci mëna am rek ñoko ray mm-hmm. voilà ñom ñoko ray état sénégal manam françois mankabu ci neewi la ah? motax ngay ngay ngay wax ñuur wax waaye buñ ko bayiwon kërëm këram du susi déw euh, donte loolu lu yomb la sax liñ wax ni jërul ñi xotal buñ ko bawon kërëm toñu ñuko defu ñuko dara du susi dew mm-hmm. li ci dess moy Louga ba fa asu soxna gaño ñun ñaar ñoko ko toogandóor fii deux bi di ko wax pourtant ñafa nekkon war ko assister ñepp lañ japp ah ñoo waroon a assister asu soxna bi problème bi amee ñëpp lañ jàpp tëj ci kaso bi parce que li ñu leen jàppee mooy yéen da ngeen a waroon a assister nit ku nit nit ku nekk ci non assistance non assistance à personne en danger liiri Tiwaawan yii treize liir yooyu fa gaañu woon ña fa waroon maanaam sage-femme yi dañ leen a jàpp waaw lan moo tax François Mancabou ki ko waroon a assister ba du mbëkk bi François mbëkkee ba dee moom ñu ko waa xëccoo moo fa am moo tax luy xëccoo lu ñu xëccoo. ñu koy jël si bu bañee. déedéet yow yaa ngi xew yow ñu yóbbu ko ba fii ci brigade bi ci kii bi. waa police euh, centrale bi. police centrale bi ñu ne dafa toog ba mu yàgg mu mbëkk mu mbëkk poto bi. waaw waaw bisimilah. bu fekkee nit bu ko defee à son mais tey jii. vidéo treize minutes la ñu wax de. vidéo treize minutes. waaw. treize minutes nga jàpp ko di mbëkk kenn. ne ko mais gisaguñ ko leerañu dañ ko wax rek ay probabilité lu bari ñu wax. mais kan moo vidéo. trop d'amalgame ko wax. waaye bi moom. norna naa yëg ne. moo gën wayef am musu war kel nek ci réew mi mom ndax non wa lim doonon doonatu ko. ndax lan nit. gis nga Elaas Njaay bu toogee fi ci kër gi. Mm. fi mm. wax dara. Mm. da ngeen ko wara gëm yeen ñëpp parce que mom la Elaas Njaay. mais su fekkenta ne danaan am naa ci vidéo pour ngeen gëm ko jaratu ko doonatul borom kër gi. dégg nga li ma wax bu mais parce que yéen yéen ah? a. yéen a bën a weddi. sa kër dañoo borom kër borom kër ci kër. yéen yow yaa ngi ko de. yow taf borom kër ci kër bu toogee. daan joxe dépasse tey amut dépasse su bëggee wax waa kër gi ne leen tey aw boobu dépasse jërul muy jërul muy yulli poosam di def nii di génn di xool naan xool leen na wax rek yoruma dépasse mhm. su dee borom kër la rek danañ naa ah, paa waaye Ousmane Kabiline Diatta moom njëkk a génn di théâtre naan jàpp nañ ko hi hi dafa garaaw waa ji ne mu yéemee maanaam di wax wax joo xam ne maanaam théâtre cent pour cent la matul matul weer nga war a ñëwaat waxaat ak sénégalais yi yaa gën a xam ne la nga waxoon bañ weddi ko boo waxaatee dañ lay weddi faaw nga naan am naa vidéo hmm. dégg nga waaye vidéo boobu mën na koo téye bu mu mbëkkee buñ ko mbëkkaleeg ngi ko torturé rek lépp. ñoo fekk ab gor bu toog biir këram ñu jàpp ko saax saaxee ko rey. ati damay d'accord ba xam gëm nga ko euh, ba xam itam yaakaar nga ne war a a nekk famille euh, François doon nañ ne ñoom dinañ defal seen autopsie traditionnelle maanaam ñoom ci seen tradition dinañ def seen propre autopsie. Mhm. ba xam ni mu demee naka nga gisee wax jooju. Mhm. nu mu hmm, xaw ma nan gu jaabi. Mhm. dañ koo def autopsie. daat ne dafa. dañ ko dañ ko jam paga Mbok yi def contre defaat beneen aussi ci jox ko ñaari médecin mu ne ki fetal moko ray deug lolu nekati lo xamne xam ne léegi médecin yi ñoo wax deug procureur yi ñoo wax deug léegi fan la rew mi jëm rew mi damay ragal autopsie bi dafa dafa dafa dafa confirmer ne dafa confirmer ne dañ ko fetal dafa confirmer ne ni ñu procureur bi doon wax amul autopsie bi médecin bi autopsie bobu moy autopsie autopsie Antoine Diome ak Macky Sall rek moy waxal li nga bëgg ñu wax ko waak fami bi rek kessé légui ñom ta lool nak wax dëgg yalla Sénégal Sénégal lu mu mësa a ñak ñak ñak lu mu mësa a ñak ñak ñak médecin dañu sérieux ah non dañu pourquoi dañu sérieux woon ba légui Macky Sall fi fii médecin médecin wax dëgg yalla man jappo na ne ak ñak sérieux nekkul ci ñom mhm. ay procureur ak yi tamit jàpp na ne yenn ñak sérieux gi mësta ñaka nekk ci ñom motax mhm. ñom dama leen di ñaan ñu waat gis nga am réew sa waay gis nga procureur dafa for de procureur ak juge maanaam magistrature bi ay dañoo dafa foor ay nit lañ ñoo xam ne normalement dañoo war a mel réew mi noo xam ne luñ la teg rek danga ko war a nangu parce que ñoom la ko da gëm ne ñii ñu maanu lañ ñu dëggu lañ luñ la teg rek yaa ko war a tegoo mais suñ demee bay def ay affaire de jeu ba sénégalais yi ñemeetuñ leen su boobaa réew mi catastrophe bi muy indi kenn xamu ko mais yow chaque jour nga catastrophe lu mosuma ko wax. ah sëñ bi si catastrophe nga dëkk. man laa wax. yow waa waa APR yi ñu ñu ngi ñëw di la menace. balaa may ñëw ci APR moom si catastrophe yi bu ñu doon lim fii ba suba duñ pare. yow nee nga fi xa Fatma Ngom Khadim Samb ñoom ñooy conseiller président. waaw wax nga ko fi benn. Mm-hmm. beneen bi topp waxaat nga jël leen wér di bi nga xamante moom mooy. wér di magistrat yi wér di magistrat yi. maa ko wax léegi lan moo Masih yi li tax ñu war leen a wér. bi day xool fan semaine. non xooluma ko sama heure laay xool ak gis nga sama nu mu tuddati magistrat yi. damaa gis ne bu député bu la da ngay dem da ngay naan xaaral ba deux le trente juillet su jotee ma ma ma wat ma ma wate wàccee la. président bu la ko ba la Hmm? maire bu la toj nga ne bayil ba 2023 duma la watel waye ap procureur bu la tooñee mënoo koo wàccee mënoo koo fal mënoo koo folli mënoo ko bind mënoo koo wax dara boko ko yenn waxi ñom dañu yoon sax dafa ar seeni der kenn wuru leen wax yenn waxi respect biñu leen wara jox dañ leen kay jox ci force deng nga amul luñu ñu rendre compte procureur bu baax ak bu bon ak ñep kenn du len kenn du kenn manam kenn mënu yow mi ak Sénégal gépp buñ andon bëgg a procureur mënuñu comprend tan te yow woor na la wóoral yalla bari na luñu ñu ci suñu réew mi nit ku bok ci nguur di jeng manam nit ku bok ci ci yoon di jeng jëm ci nguur gi gis nga Macron gënut Macky Sall Macky Sall yalla dafa dogal man na gis ab juge fay ko mu bindal ko lo xamne jaadu mu sukkandiku ci Macron ñemewul a ger benn fii si benn benn benn benn benn France xam nga ñun il faut ñu xam lan mooy état biisu état buñ ko amoon maanaam lii àjjana ji ñu alxuraan di wax moom la ñuy tàmbalee dund fii waaw parce que amoon état bu jaaru yoon kenn duñu sàcc kenn duñu ger dindi lépp luy tra def lépp luy transparence mais ñu koy def xanaa ay ay ay ay ay jinne lañ fan la am. na France am na Allemagne. France mais France ñoo nee France na Rwanda. mais France mais am na Rwanda am na Tunisie. Paul Kagame du ñëpp ah, ñoo d'accord ak mom mais ñëpp d'accord Paul Kagame mais dëkk ba ma ngay do xam nga ñëpp yalla yalla sax am na ñu d'accord ak mom euh, ñaka a d'accord moom France bi ngay wax mer tax nit gis président dëkk fi kenn dafa taxaw ñeneen mbékk. wa d'accord wa kenn waxu la kenn merut de. waaye wala manam li ñi woowee ak dundu man dama lay wax ne la. Mm. amna doomi Allemagne jo xamne ñoo ñu santaane amna doomi Allemagne jo xamne amna 80 ans am na quatre-vingts ans ci tey <laughs> ah, hmm. am na doomu Allemagne boo xam ne am na quatre-vingts ans ci tey hmm. mësta dund injustice te Allemagne la juddoo yaroo fa màgge fa hmm. mësta dund ger mësta gis ger kenn mësu koo ger mësta dund inondation boo demee sax dund na quatre-vingts ans aw yoo ko mais sëñ bu ñu tëkkale Allemagne tamit nag mais lu tax waruñu ñu tëkkale ak Allemagne. Allemagne pourtant Sénégal nag kañ waxtaan na. Sénégal Sénégal moo waroon a raw France. waaye ñun gis nga première révolution bi nga xam ne Thierno Souleymane Baal def na ko en mille sept cent soixante soixante defe naa. Hmm. booba révolution française amagut. waaye si Thierno Souleymane Baal taxawee fii di aaye njàppum jaam. Hmm. di wax transparence hmm. di wax euh, gouverneur gouvernance sombre et vertueux mooy lépp transparence ba noppi nit ki mbir mi kenn du ko def ndonoy ndonoy dret maanaam constitution bi Thierno Souleymane Baal def bi mu koy def booba révolution française euh, en 1789 guñ ko. mais mooy jappé Louis XVI. mais donc ak la fu jappé xoolal bi Louis XVI ba ray ko. Mhm. dama lay wax ne la Sénégal ci bopam ñun dañoo dellu ginnaw il faut ñu nangu. gis nga Louis XVI biñ ko rayé lettre de recommandation yi nga xamantene aduna bi dañ ko def 50000 lettres la. Sénégal dañoo bind. def recommandation. tubaab yi nga xam dañoo nekkoon fii commerce. Louis XVI ñom biñ bëggé former war gouvernement dañ né dañuy dindi njaayum jaam. ñu bind leen ne leen su ngeen ko dindee na ngeen ñu wutal beneen business bu ñuy def parce que ñun dañuy jënd tubaab yi nga xam ne dañoo nekkoon fii di commerce bi Louis XVI ñoom biñ biñ bëggee formé waat gouvernement dañ ne ñuy dindi njaayum jaam ñu bind leen ne leen su ngeen ko dindee na ngeen ñu wutal beneen business bu ñuy def parce que ñun dañuy jënd ñu leen jaay su ngeen ko aayee nag yàqal ngeen ñu. xoola mille huit mille sept cent quatre lañ bind lettre boobu. ñi ngi aayee njaam jàppum njaam en mille huit cent quarante parce que may nañ leen siècle ñuy continuer di jàpp suñ maam yi di leen exploité. gis nga wate en 1944 la njëkk a may ca France jigéen wate. le droit France accepté na na jigéen mën nay wate bi ñu ko defee ñoom su koy na konaare mooy militant wu ñoom Lamine géey bi nekkoon ndar mooy jigéen ju jàmbaare ñooñu ñooñu ñii ñii du ngeen ko xam da ngeen fiy nekk di wax wax yoo xam ne gis nga ay su koy na konaare démocratie Sénégal ay jigéen ñoo ko fay xeex ko.

ba fii may wax ak yow maanaam ab sénégalais mësta dañ ci di recommandé xaaral xaaral dama lay wax rek gis nga recommandation bi may def nii nga naan ay gis nga recommandation dafa ànd ak sénégalais biñ fi ñëwee di teg di teg di teg di teg seen seen seen seen kii bi nu mu tuddati di teg seen seen euh, colonisa colonie bi bëgg ñoo coloniser mhm. Cheikh Omar Foutiyou ñoom ñëpp lañ doon xeex ak ñoom Cheikh Omar lu nit di am ci àdduna am na mhm. ay boolam bool yi daan añe juróomi téeméeri bool la daan doon mhm. ay nit di ko sukk juróomi téeméeri bool ñaata nit ñoo ci wara a ñepp mo leen do dundal ci posam lim amon ci ay fas kenn amuko won ci rew mi dañ dan dem banan day loxos xaliss ak dafa am jinne ñu koy jox xaar amon na lepp mais teewul musu ko soxla da ko teg di di guerre xam la non guerre muy recommandé dignité humaine bi morona am tuba bi bëgg ko xaj mm. jaar jaar jaar fenn fu nek ak ak ak ak euh, euh borom ki bi num tudati feder feder ñu xex xex bu nek bi fi Cheikh Omar jógee teguñu ci dara ñu ñu indi guerre pacifique moy ñu jékki-jékki na léegi manam euh, dag dag nañ jaay jam gi dag nañ yooyu yëpp léegi dañuy manam kenn dootu leen jaay am ngeen seen droit dund waye nak luñ ñu dul japp ci suñu yaram di ñu jaay ni mais dañuy jël suñu xel ñom di ñu jaay seenum xel nangu suñu xel dañuy jaay seenum xel si Ahmadou Bamba ak Alaaji Malik ñom ñoom ñëpp guerre bobu lañ nekkoon ak ñom moy du ngeen jangal nit ñi du ngeen yar nit ñi du ngeen former nit ñi mm-hmm. ben technique lañ doon def moy ñi ci doon dem école ay wal jojo ndjay wax na ci ay waxam da ngay nee da ngay dem ci école bi tubab bi jangal la mais sa mam mi ngi ci kër gi di boo ñëwee mu jangal la aaday Sénégal ñom cheikh Amadou Bamba alaaji Malik lal ay mbalan yu wasifa jox nit ñi kurus fexé ba yégal leen am fu mu leen duggal bañ nek bañ dess ni ñom seigne touba wut ay der wut ay ay al laxasaay nit ñi la laxasaay yu jangi doon liñ doon bay ñess jaar alaaji abdoulay jaar na le mam Khalifa jaar na le lolu bimu gis nga lolu fimu yam bi génération ñom seigne touba jeexee rek ci la 39 45 départ. 39 45 bi mu jeexee te suñu maam yi ci lañ dem France gis gis France gis français yi. pour ma wax la ne li may wax nii dafa wiiri rek waaye maa ngi ñëw. waaw parce que parce que xaaral gis nga bi mu gisee bi ñu demee France dama lay ne ñu nag France bokkuñu bi ñu demee France. Mm-hmm. ba dund France dugg xool xool dañ ne mais mais ñun français ay nit lañ comme ñu naa ah, li ñu def nii war nañ koo mën a def. gis nga bi ñu ñibbisee caaroy 44 paa yi ñu doon rey xam nga lu ñu rey leen. ñame gi tambalé wona ñame français yi tambalé tambalé recommander seen droit. Mhm. kon France ay nit do nga fa nek gis nga bi bi bi 44 jexé 1960 ñëw ñom ñom ñom ñom ñom ñom wal jojo tambalé recommander seen seen seen seen seen indépendance. musu ñoo neex le fi ci réew mi bis bu nek ak mbañ bu metti lañ doon jakar jàkkaarlool léegi nak ñun dañoo dem ba tay ji ñu bëgg jappé tuba ab yalla jappé suñu bop lo xamanteni ab jaam lañ ko jappé xawma mais li tuba bi man man nañ ko lenn rek mo nek ci ñun moy ñun dañoo gëmut intérêt commun ñun kenn ku nekk bi su Ngoné dafa defe ne bu gisoon Macky Sall fii dafa war a dem làqatu gis Mariam fay ñu jox ko enveloppe mu am oto amu kër toog mhm. man ma defee ne lool la sëriñ bee jàpp ko sëriñu daara bee jàpp ko réew mi kenn du ko taxaw loolu mooy suñu problème gis nga réew mi dañoo dem ba dañoo jàpp ne ku yor oto man nit ñi lañ ma koy wax man xam nga am naa aw sagaru oto am naa am naa foo may fanaan nit ñi naan looy xeex looy xeex looy wax ah nit ñi dañoo dem ba def seen biir bopp bi de ku am oto ku amu kër Ah, am portable iPhone 13 yow waroo am nga oto am nga. Ah? am nga kër man ma xaalis. yow xam naa ne du ma ko a am. aw ma aw ma oto am am naa oto mais du ma am xaalis parce que ah. yaa ngi dégg parce que activité yi may mëne. sëñ bi yaa ngi sant yàlla barke sëñ Tuubaa ma xaalis. activité yi may mëne mënu maa permettre ma am xaalis mais nit ñi dañoo dem ba gëm mhm. soo amee oto yow mii boo doon kaas ñu wax la ko boo amee oto amu kër am portable bu baax yow waroo wax dañoo gëm ne nekk fii di wax ak Macky Sall ak dem marche kafir ba dola la te lolou dafa dem ba dugg ci bop nit ñi gis na fi pap jibril torop ci sen télé bi mu naan waw jël xalé yi di leen tek ci tali bi ñuy wax gis nga mais man man gis nga ñuy xam nga ñu ñoo xex xam nga ñu ñoo xex xeex xuray si cham xuray si caam nga xam international basketteur mil duma wax milliardaire nak xawma ma xam mais international basketteur bu dee ci niveau jang mo raw pap jibril bu dee mag jàpp naa ne moo ko bu dee ëpp xaalis moko ko ëpp xaalis pourtant ni la ko gisé mu sol trem nek ci tali bi di lak di xex Cheikh Jamara cheikh da ngay bu ñuy wax sax ci ñiy xeex pour yee ñu respecté leen ay ñoom Aliou Sow ah Aliou Sow bi ñu jàpp yooyu noonu Aliou Sow ah, Amadou Ba laa Amadou Ba bu Pastef bi ñu jàpp demal xool ñu ku ñu jàpp ab cadre mhm. liggéey impôt et amul koo ci xaaral ma ñëw rek amul koo ciy jàpp laa wax li may wax nii daf ma ñor amul manifestation yi ngay gis kuñ ci jàpp boo ko laajee am na fu mu dëkk am na lu mu jàng am na lu muy liggéeyee mhm. waaye boppam bu doon kenn ku nekk sa bopp sa bopp kon du Ousmane Sonko mii jiite xeex beeg ñoom Khalifa Sall mi bu doon seen bopp ñu dem seen yoon ah ndax xam naa ne adduna du ko fa yàgg ba ñàkk tib dépasse mais am réew kenn du xeex pour loolu nit mënoo nekk fii ci état ñun Sénégal yi dafa dof gis nga mënoo nekk ci ah, ah, ah. biir wala gis nga gis nga yow ñun man damay toog sama kër tey ba mu yàgg ma ne maa ngi nii toog fii ci bi di seetaan sama teel dof ñu de ci ginnaaw sama kër ñetti ñeenti maanaam lu matul deux cent mètres ay nit a nga foofu comme i mbott toog ci kaw kawam ndox ma am envie man dem ca ñoom toog ci seen biir biir ndox moomu gis nga gis nga loolu nga gis noonu benn sénégalais yow ni ngay toogee nii gis Kër Massar gis ay nit na yow di dund ci ndox comme mbott billaay benn français bu ko doon tund France gépp duñu lekk duñu naan tànk loolu réglé wu mais mais ñu ñëwaat ci kaw loolu nag fii egguñu foofu fii egguñu réew mi du jag réew mi nañu bàyyi bopp suñu bopp jiñ nekkee. mais yow dama ñëw ci kaw kaw Pape Djibril Fall kaw Pape Djibril Fall. Euh, gis naa ko barki dem nga wax ne da nga ngeen ñëw mu porté wu volonté dafa bëgg nekk député ñu bëgg ko critiquer parce dafa dèjà mais day nekk mbuur tey actuellement loolu moo tax waruloon euh, disponible donc pourquoi dal bi parce dafa créer liste parallèle am ne moom day bokk lu tax ngeen ko mën a dal da ngeen dal ko à ce point. man daluma ko. bu amee kenn ku ma yéene mu nekk député ci Sénégal Pape Djibril la. ndax. dama ko koy yéene. ndax lan. parce que xam naa ne. il la le carré. xam naa ne ci taar ngay xool rafet. non non non maanaam pas taar. ah non am na xam-xam yi itam. Pape Djibril maanaam mérité na. nekk ci assemblée bi di wax. mérité na ko. te bëgg mu nekk ko bëgg mu nekk ko bëgg mu nekk député moo tax ma war ma ne ko yaag Tunkara da ngeen ne bokk garage bu ngeen déparé bokk mbedd mu ngeen aw léralal ne du ngeen bokk arrêt bu ngeen wacc parce que Tunkara arrêt bi mu wàccoon daa baaxoon ma arrêt la noonu Tunkara ah. arrêt Macky Sall la wacc ah yow di ngi ni affaire nga bokk man wa non man APR da naka ci la bokk ndax man samay xarit ci lañ nek samay nit ci lañ nek ci nekk APR bo demone est-ce que di nga dugg non man man déwuma fenn pourtant Sonko sax déwuma ci moom déwuma ci kenn ah, soo ko boo demoon ci moom yaa ngi ci sama bopp laa nekk. di dund li ma war a dund. mais yaa ngi woon Pape Djibril bi. Pape Djibril dama ne yéene naa ko mu doon lim doon. Mm. waaye man dafa am tuuti lu ma koy conseillé. Mm. su ma ko gisoon ci njëx ren ma wax ko ko gis nga nag Pape Djibril Sénégalais yi bëgg nañ ko. Mm. lim yëg ba ñemee taxaw ne day laaj xam na ko. jékki-jékkiwul rek bu fekkonte ne yëgul ne am na fu nekk ci xolu Sénégalais yi du jékki-jékki dem di laaj. Mm-hmm. dafa am lu mu yëg am lu mu dund am ay réalité yu mu gis ay volontaire yu ci ni ma ko dégloo ci discours am nit ñi ñoo volonté wu pour yóbbu ko tam fekk mu am bëgg-bëgg bi parce que Pape Djibril maamam la ca caajaay mm. ki jur baayam waaw dégg nga nit la ku nga xam ne am na ambition dégg nga doomi doomi doomi doomi doomi doomi doomi géwal nag day neex a tàccu mu fecc mm. ku sa maam daan politique loolu boo amee tuuti bunt rek di nga ko exploité Pape Djibril man mii ak ñu bari biñ ne day laaj man nii li ma yaakaaroon dina ko indi dama gis ne bi mu ñëwee ci campagne bi indiwu Liko ko def nag mooy dafa sensé discours. voilà sénégalais yi Macky Sall lañ bañ bañ goo xam ne boo ko boo ko bañee fesal ko. bañu ñu ko de. dañ koo bañ ñëpp déedéet baax na waxati loolu. Pape Djibril daal ni def nii di yoot ak du ma ko taf fii du ma ko taf fii na na xool. maanaam benn ciment lay doon affaire bi benn benn tureelu ciment la da ngay xool fi nga koy dóor nga ne ko fa tay mu leer nañ ni ko ñoom Sonko ak ñoom Abdourahmane Diouf di defee. affaire bi da ngay nekk ci Macky Sall wala nga génn ci Macky Sall waaye nekk ci digg bi di def nii loolu baaxul te man damaa gis ne dafa def ben discours xam nga man nit dama lay top dafa def ben discours fi ngeen ko wo ci sen télé bi mu wax ci discours bi gaay polémique ci discours bi mu bëggee taxaw loolu du won position duma opposant duma duma duma duma duma duma duma ma du ma du pouvoir loolu nekkul woon position Pape jibril ci ci xew-xew bobu taxawon ci loolu la doon wax ne man duma opposant mais Pape jibril taxawul ci loolu non mais daf ci taxaw gaay dañ ci polémique mu ñew di dëggal bopam ta koku bo ci dëggalee sa bop des ci ndox mi ndax lan dañ nan bo paré ci Macky Sall nga parce que Tunkara dañu ko defoon wax rek dina tax Tunkara dafa tok fi tàngub discours lol jek jek rek ne day def député bi mu amutub député da dem ci Macky Sall ta bam démé ci Macky Sall li gëna bon moko ko conseiller moy la bul wax wi bul wax no ci ci ci ci 3e mandat kon pap jibril bu fekkentene mom boy booy Tunkara la won ñuy and nit ñi xamé la ci télé nga jékki-jékki def. sa mouvement première première sa ci politique législative la. nii ma la ko waxee ñëpp noonu la ko Tunkara defee woon. Tunkara bi mu amul daa dem ci Macky Sall yow nag il faut ngay def discours yu wane ne boo amee ak boo amut demoo ci Macky Sall pour nit ñi mën laa ñeme. parce jàpp naa ne moom ñi bëgg Macky Sall rek ci la Pape Djibril mën a am. il faut mu wax leen lu leer rek sëñ bi sëñ bi Macky Sall moom amul droit gis gis euh, euh, Cheikh baara jaay mu pertinent loolu mu xam ne kii mu amal na njëriñ askan wi amal na njëriñ Sénégal mu woo ko mu ñëw. waaw yow doo dem. Macky Sall par maanaam mu woo a ma dem nii comme la. Macky Sall bëgg def ministre conseiller comme Bamba Fall. woo ci jàkk dañ lay julliloo. Macky Sall li mu nekk leer na nañ te yàqub xaalis di foo di fooyee réew mi kum woo ne la kaay dëggal it moom dëggalut bay dëggal. kenn di ko ah, dëggal ku ñu woo ci jàkka julli lañ lay doyee. boo amoon sa sabar ci koñ bii xam nga ñi ngay dem yóbbul leetar ne leen kaay leen ji. nga kaar mukk. man am na am na <laughs> suñ booyi koñ mas nañoo ñëw indil ma. sëñ bi kaaw ba ma leetar ne ma. <laughs> temps bi daanaka léegi mu <laughs> jàpp dañoo am sabar quoi ma ma leen di weer rek leen ah xam nga ne boo amoon sa sabar. ñi ma woo dem ci benn benn benn imaam jàkka ji naan ko imaam damaa am sabar. kenn ku nekk buñ lay woo xam na ci liñ lay woo. Macky Sall du dara dalu ko xam na ne Tunkara mii li muy wax ci kaw bu doon loolu lay wax ci biir du nekk ak Macky ci benn néeg di waxtaan. Macky moom lim nekk ma nga ca leer na nañ ku ko ci fekk nag yaa ko ca fekk voilà. Bamba Fall. ci lan Bamba Fall lu muy lu mu doon. naka nga gisee euh, euh, dem bi mu dem ci ci Macky. ah loolu moom wax naa ci ba tey moom moom loolu. un mois avant muy falu rek daa a wax ma paree ci Macky laa jëm rek bu soobee yàlla dina xam ba xam waa Medina ànd nañoo ak moom wala ànduñoo ak moom. Hmm. waaw koo xam ne yow mitin nga ba mu yegg mosoo mosoo nangu ne maa ngi ñi ngi wax. Hmm. bi nga faloo ngay doog ne wax ak Macky baax na lu tax ba mu baaxee waxu ko nit ñi avant. waaye nag li wóor te wér mooy. tey jii maire yi nga xamante ne ñi ngi xeex gouvernement xam nga politique moom seen gox. nga ma ne maire buy xeex gouvernement ak bu tey jii la nga doon boo timoon président Macky Sall di ko conseiller comme ni nga ay xarit APR ku mel ni euh, euh, euh, ku mel ni Amadou Ba moom naka la ko war a téye Amadou Ba man mo lon xelal Macky Sall legui ni rek ci ngone pourtant waxna ci nit ko xamne dafa am lu muy bind ci politique ma ko dafa am Macky Sall lo xamne ne daf ko wara a xel. gis nga wali sek day xulóog sénégalais yi. day ñu ne LCBT wali nangam nangam dal Wali Waly bi wali lim sol mais après da ngay gis ne dañ koy balat dañ koy bal dañuy mer ñu ñep meré ko jek jek bal ko deng nga gis du dëgg moo tax. non non am nu waali mel am nu muy dundeek ñoom. Mm-hmm. am société ku nekk dafa am noo ciy dundee gis nga Gaston Mbengue dafa am nu mel ci société. Mm-hmm. voilà am mu mel da ngay xam ne dëggu na lu mu bëgg a wax dina ko wax nu ko neex la koy waxee. Mm-hmm. aussi am na am na am na am na loo xam ne Gaston am na ko loo xam ne qualité la mooy man mosuma gis Gaston muy dem muy porter plainte nii. nga koo gis <laughs> ko gis. loolu man noonu laay jàngatee société Gaston. xam leen ko war. <laughs> ah mas ngaa gis Gaston mu pelente kenn ñu naan Gaston day wuy ji. moom moom loo ko def day fayu ci làmmiñam bu ko mënul mu muñ ko. Hmm. voilà loolu ay qualité la yoo xam ne ba ngay xool société bi bu baax nag di ko jàngat di ko xam. yaa ngi wax ak koo xamul. non waaw. waaw kon ne rek. non non waxooluma ko dara dama ne man mosuma ko gis mu jàng mu mu li loolu dafa am ci société mooy. waali nan lay def ba nga xam ne nit ñi dañ day tooñ nit ñi après day nit ñi dañuy ñëwaat baalaat ko. Hmm. mooy sénégalais bëggul man la. Hmm. boo xoolee Macky Sall. Euh, da ngay jël euh, Marème fay Marème fay tey lu nit ñi bañ Macky Sall rek ba gëmeñ ko Marème par exemple xam nga lu tax mooy du la wax ne man la sénégalais mën nga aju ba ci kaw garaaw mais bul bul ko wan ne ko man damaa aju ci sa kaw comprendre nga am na ku ma waxoon ma ne ko waxal waxal kii mu bàyyi fecc waayu Marème mu ne ma non non nee na su ñëwee ci ay ay gan ay nit nit ñi dañuy toog ne nii ko naan ki première dame la quoi frustré wu touti non parce que di ko jéem a bu bu len feccalee ah rek di contane xam ah ki kat ndekete kenn la ci suñ biir. Macky Sall nak problème bi mu am ak sénégalais yi mooy moom nit ñi dañ ne woon dafa yaru dafa bax mom bimu togué mom manam maanaam ëpp doole man la. suñ bi comprendre la question mën naa leen a dóor ci loolu rek lañuy gis nga marché bi bi ko pour bi ci dama ne fekk sama ci question. pour réseau bi kii kii Amadou ko Macky Sall waaw. Amadou Ba moo noonu mooma bu élection législative yi jàllee. Hmm. su ma Macky Sall farul premier ministre dama koy bàyyi. ndax lan. ndax lan dañoo yàgg. Amadou Ba xaaral damay ñëw rek dañoo yàgg. Hmm. Amadou Ba dafa gëm sàll Macky su ma gis fu mu ko bàyyee. makki toog na ba mu neexoo mu dàqu ko. ba léegi nii waxu ko dara. mu politique loo ko ci local yi te local yi pourtant bi mu joxee euh, bi mu joxee euh, Ablaye Diouf Sarr. Mereu, maire Dakar ne ko demal laaj Dakar. Mm-hmm. mënoon na bàyyi Amadou Ba mu laaj parcelle gagné ko tey. Mm-hmm. pour am départ politique mais ku la yéenewul maire ba ku la maire parcelle du la yéene du premier ministre. yoxu ko dengam, dégg nga ma ñu ñëw tey investiture yi Macky Sall. bëgg a laaj troisième mandat moo tax mu investir Mimi Touré mais xam na ne bu dee bayre bu dee xaalis bu dee mbooloo bu dee charisme Amadou Ba ko ah, ëppale Amadou Ba ko ëppale Mimi Touré mais xam na ne Amadou Ba boo ko defee tête de liste dina dem Koungheul dem Bakel dem Matam dem dem Medina Yoro Fula dem Casamance bu ñibbisee day xam réew mi ñëpp xam ko soo xuloo moom mu am départ politique loolu dong la koy la koy la ah, ko stratégie dong la nangu wul a fal góor bu jiitaloon góor góor googa bu amee moom problème troisième mandat day nekk yaakaaroon fi situation bi léegi nag Amadou Ba man su ma nekkoon moom du ma toog damay toog ba élection yi jàll suñ ko gañee ak buñ ko gañewul Macky Sall bu defee gouvernement bu ma tegul position bu baax ma dem ma dem def dem wuti présidentiel. léegi yow yaakaar yaakaaroon ni comme président moom euh, euh, ba pare am na possibilité wu fal premier ministre yaakaaroon ni ak élection yi ñu doon jub nii bu ko ko faloon du am dara. Amadou Ba bu ko tegee premier ministre wala Aly Ngouille dina am maire premier ministre dina am premier ministre bu baax mais du ko def ci li yaakaar. ndax lan. mooy dafa ragal dafa ragal ñoom seen seen taxawaay. Macky dafa amul yéene Ablaye Wade ci bir nguram ci la Macky Sall doone dara ci la Idriss Seck doone dara ci la Souleymane Leena Ndiaye doone dara ci la maître Amadou Sall manam ñi genn ci Macky Sall Ablaye Wade doon dara ci rew mi kenn xamul lu toll Macky Sall ñim andal waxuma ci kenn ko xamne waxuma la doon dara waye teraanga ji nga yor sax jëlé woko ci moom naka Farba Ngom mi ngay gis Wade ko teral ak ah, ah, ah, Arona Dia mm. géwélu Arona Dia la du géwélu Macky Sall mi de mm-hmm. dedet Arona Dia la nek nekk ko Ablaye Wade la la amantel comme nguur Aliou Sall mi di rakki Macky Sall million ci Ablaye Wade la ko Macky Sall amul nit lawa, wax nit ko xamné ne teranga di nga yor ci Macky Sall nga ko amul. dégg nga amul kenn ko xamné nek nga ak Macky Sall bam mu xé am privilège politique nit ñi respect la. Mimi Touré mi bako Macky bam mu àndagut ak Macky Sall respect. Ali guy mi bam anu àndagut ak Macky Sall respect parce que dalay wayé di lo xola xola Antoine yi ko Macky Sall lo. def lo tay ji Macky Sall bu xëyoon dak Antoine Antoine fan la jëm ci réew mënatoo dem sarax mënatoo demub dëj ndax ñëpp tam nañ laa tama tam ba kenn soxlaatu la sa image sax kenn ñemeetu ko mm. Macky Sall da lay da maanaam Ablaye Wade boo àndee moom bu yàggee nga doon daanaan def dara mm. Macky Sall nag amal xam-xam rek mu dàq la xaadim Samb Farba Ngom ñooñu lay jël ñu koy conseil naan rayal gars yi tëjal gars yi muy ray di tëj na ngeen gisee euh, docteur Babacar Diop maire de Thiès euh, taxawaayam wax ren nag maa ko wax <laughs> docteur Babacar waxoo ko de maa ko wax man te dëgg laa wax xoolal ba xam fii Macky Sall ñi mu àndaloon tañ am xam-xam ana Abdou Aziz Tall ana maître Moussa Diop ana Ali Nguy Ndiaye Ali Nguy réew mi kenn rawu ko fi. dafa am xam-xam bi ko Macky Sall yi jël banque nu banque l'habitant la ko VHS. VHS. Mm-hmm. Mm-hmm. mu nekk kàngam am xam-xam mu jël ko téye Ali Nguy bu jékki-jékki woon jaarul ci Macky Sall ñëw di laaj réew mi mën na koo jël. mais ñooñu Macky Sall da leen jël di leen utiliser ni mu ko neexee te ñoom itam ñoom ñëpp man xaw ma fu mu leen dugal kenn ku ci nekk di yor te politique nag sëñ boo ci génnee xeex mu jeex. mais image boobu Amadou Ba amagul Abdoulaye am ah. image boobu Amadou Ba amagul ko <coughs> image ban. boobu ngay wax. mais Amadou Ba lu mu néew néew yow. Amadou Ba nga ne bu dee chance moom moo ci ëpp chance. Amadou Ba mosoo gis opposition di ko saaga mosoo gis waa kër Macky Sall di ko saaga dafa am charisme am na lu ko sénégalais yi rusé dégg nga bu doon tane ab ab buy la ma ne buy buñ xolleegul la lu nekk mën naa nekk ci biiram. mën naa nekk président Sénégal. bu ko laajee tax xam yoon bi muy jaar stratégiquement mën na ko doon parce que facture am may na ko ko taxawaayam ci réew mi may na ko ko. mais Macky Sall ci boppam laa bëgg ñoom ñu xam ne ñoom ñoom ñoo ñuy ànd ak moom maanaam ànd ak Macky Sall ba xëy doon dara laa mës a gis ku ko def. Hmm. kenn ngi musu koo def. sëñ bi taa bi jeex na. waaw kan yow gis nga ko kenn ku ko def. <laughs> danañ koo xam ne ànd naag dalal bu baax ci dalal gi ngeen ma dalal mm-hmm. eh, big taf sama xarit nga gisu mm-hmm. ngoone du ma émission iya, iya. waaw bañ ko ba bu defee émission amna na aadama ñaay day indi ko wan ma ma ko ma parce que professionnel la dal wa professionnel la vraiment wax deug yalla waaw ah. tout le respect. euh amna amna luma massa def moy magal Touba masna ñew ma romb la jógee daru Tansil mm-hmm. ma nek ci auto ñu ne bisu ngone bisu ngone bisu ngone musuma la wona gis dama ne en arrière ba arrière ba ma gis la ah, nga takki wer nak mo ñàng ñàng nak ma xol la ba ba daal di daal continuer daal dem voilà après. mooy xaw na yàgg boobu star nga woon daal te léegi nag daanu nga li tax mooy star bi <laughs> léegi euh, di wax sénégalais yëpp nag ci ay élection lañ jëm mm-hmm. élection yi ñu jëm élection législative la tudd mm-hmm. ñi ñuy tànn ñooy ñi nga xam ne luñ daganal ci réew mi mu dagan luñ araamal ci réew mi mu araam mm-hmm. kuy daganal wala ngay araamal nag yow ci sa jëmmi bopp boo araamee lu araam donc nga fay nga fay nga fay woote nan nan bu dee nag ak daganaa dagan lu dagan nga fay mën a woote kon nag dañ xàmmee ñi ñu war a fal. te li ñuy bëgg a def tamit mooy wate nañu xam ne wate lu sacré la ci doomu aadama. kan nga jàpp ne moo jekku actuellement. xaaral ma àggaleel message bii ma yónnee Sénégalais yi wate dafa sacré. ci Sénégalais yi. sacré ci foo mën a dem ci àdduna. gis nga boo gisee booy wate ji ñu jël ab ab ab sër defar ko ba nga xam ne mbañ gàcce lay tudd. nga dugg ci biir kenn du la gis. li ñuy bañ mooy nit koo àndal mu naan la tee ngaa jël kii wala kii. dañu bëgg nga am sa intime confession jël sa xelum bopp mi kenn bañ la influence moo tax ñu defal la abrido rido la duggal yow dong mhm. bo démé nga gis enveloppe ya lañ koy def enveloppe yoyu bu la neexon kenn du ko defi enveloppe da ngay jël kayit yu rek duggal waye dañuy bañ sax nga tim irni bi xol ko gis maroo bee si bari nga ne ah daa mel ne waa koñ bépp Macky Sall lañ wateel ñu influencé la ci seen ñi la njëkk a wate sax influencé la ba nga ba nga wate li ñu bëgg mooy def ko ci enveloppe kenn du xam koo wateel soo ko watee bañ koy wàññi tamit xam kii moo wate woon lii wala kii moo wate woon lu loo xamante ne xaritoowut mbokkut maanaam euh, euh, àndandoo lu loo xam ne nit ki bu koy def ci yëg-yëgam la ko war a teg kon sénégalais yi ni ñu gën a fonk wate bu ñu watee parce que xarit la bu ñu watee parce que mbokk la bu ñu watee parce que daf maa fay dégg li ngay wara waté Senegal nana wour né Sénégal gi dé man na ma dé suba bayé na fi samay dom bayé na fi sama lépp lima am lépp nga ci Sénégal ki dé ci juroom ñetti candidat yi ki dé buma dé won ñëmé na ko bayé sama njaboot gépp xamna né ci jamm lañu nekk kon mom lay dénk Sénégal waye ko ñëmé wuta dénk sa kër ñëmé ko dénk sa jabar diko ko dénkum réew wala nga koy dénkum ensemble bu ko loubalé bu yalla bu ko yalla duma dana ca bay hmm. lolu il faut Sénégalais yi bàyyi ko xel bu baaxa baaxa baaxa baax hmm. nga wala nga né ko jéko ci élection yi hmm non léegi nag moom bi ñu ci campagne bi leer na. Mm. Mimi Touré ak Ousmane Sonko la mbooloo mi topp. Mm. aar Sénégal ay Pape Djibril Pape Diop ñoom ñëpp. andi wuñ andi wuñ mbooloo mu bari bu fekkee ci ci mbooloo la ñuy sukkandiku. Mm. ñaar ñee ci la député yi ëppee. lenn nag mën naa la ko wax fii. mooy ensemble bii moom bu ko mag bu ko bu ko Macky Sall dee gagné tamit. maanaam majorité euh, relative la koy gagné. mooy ensemble bii ñu nekk actuellement vingt neuf lañ fi am. Ablaye Wade moom treize wa ñom Idriss Seck moy man ko taxawu Sénégal mooy lifal de ci Fall ñoom. Hmm. ak ak ak lifal de ci Fall ñoom sept lañ fa. Hmm. pur nek fa 3 hmm. deug nga plus fort reste yi moy Ousmane Sonko ñeneen plus fort reste yi ay aissata lal Sall nek par benn benn. boko bolé boolee vingt député fa en tant que opposition. suñu demaatee élection yi di ñew nak vingt neuf député yooyu moom xel xalaatut yewi sax di ko am. voilà yewi dong dong dong mën naa romb vingt député yooyu. jëm kaw. kon élection yi lu mëna nek rek moy changement dina am assemblée nationale. su ko Macky Sall mën na ci am cohabitation mooy assemblée bi opposition bi gañe ko su amul tamit danañ fa bari mbooloo moo xam ne dana wóor Macky Sall ne ko sénégalais yi wan nañ ko gannaaw loolu nag li ko def mooy. élection yi bu waxut ne du def troisième mandat bu ko pertee bu mu ko giñ Mimi Touré bu mu ko giñ kenn na xam ne moo ko pertel boppam. Mhm. voilà parce que mënoo jubi élection maanaam ñi jot laa fal waxoo leen lu leer gannaaw falaal leen ma te du ma wax lu leer mënut a nekk a wax lu leer ñu jox ko lu leer. bu waxul lu leer bu lu leer ñu ñu jël ñu jël ñu jël ñu jël maraw bees bi ne ko ne ko ne ko rang ci ci poubelle bi rek. Hmm. waaw rang muy majj majj. <laughs> wasalaam. jërëjëf hmm. jërëjëf jërëjëf Ndiaye jërëjëf. Hmm. sëñ bi kontaan nañ bu baax ci sa teewaay. ci plateau bi. Euh, ñu ngi leen nuyu bu baax di la wax euh, nga nuyu lu njaboot gi. waaw yow yow xam nga man xam. xam naa. ko nuyu. <laughs> waaw incha eh, eh, di ñi nga ngi di cette émission confrontation. Eh, di jaajëfal ñi nga xamante ne ñu ngi toogoon di ñu sant cette émission confrontation bokk na ci euh, euh, la famille ah comme ni ma tàmm di ko waxee à chaque fois Ousmane maa ngi lay euh, jaajëfal bu baax a baax a baax borom yoof ah Ousmane <laughs> maa ngi lay jaajëfal Mayma Thiaka Aziz Mbaye borom Belgique Chérif Koura sama xarit bi doomu ndeyu Ibu Aziz maa ngi lay jaajëf bu baax nee na sëñ bi moom wax dëgg yàlla bi li mu wax kenn du ko teggi ah analyse politique normale Massamba. maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax a baax ma Massamba gëmmantuwu ma ndànk sax gëmmantu ak coono ci moom laa laa laa laa dajale. ayca Babacar Gadiaga ah euh, suñu mbokku taalibe Babacar Gadiaga ñu ngi koy jaajëfal bu baax. ah waaw Babacar Gadiaga benn tamit. Euh, démb gisee ah, waaw jëwriñ Gadiaga ak ah, jëwriñ Manick Niang. waaw. Hmm? Euh, Modou Amar ñoom ñëpp ci ci ci biir. Ah, wax dëgg yàlla Mbaye Moussa Dieng Cheikhouna Sylla waaw sama gars yi ma àndal yëpp. maa ngi ayca Ibro borom neet suñu si waaye tey xadi moo fi jaar ah euh, sama sama doom ji wax dëgg yàlla ci soin de visage yu baax yeeg neel si euh, sama waa kër yëpp maa ngi leen di jaajëfal bu baax a baax Cheikhouna Gaye euh, kër ga waa ñoom ñëpp Baye Zar ak ñoom ñëpp maa ngi leen di jaajëfal bu baax a a baax Naar Albamba. ah naaru borom albamba shop ak daara jël chéri albamba maa ngi koy jaajëfal waaw sa gars yi dem nañ daara jël ndeysaan maa ngi nuyu jëriñ bu ak daara jëf Seydi Albamba maa ngi koy jaajëfal. waaw sa gars yi dem nañ daara jëf ndeysaan maa ngi nuyu jëriñ bu baax a baax jëriñ paasan ah, ak ñoom ñëpp ña nga ca daara wax dëgg yàlla xam nga loolu da ciy baax wax jëriñ xam nga xoole dañ leen di complexe parce que mooy ñuy wax ak ñuy utiliser moom bu ci daara dëgg baax